mbokk yi taamu saa su ne seen télévision Lamp Fall di ñu topp si euh, biir réew mi ak si biti réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax tàmbalee si nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa mu Cheikh Mouhamadul Bachir mi fi euh, Serigne Touba Khadim Rasoul di ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér di nuyu ak ziar Serigne Cheikh Jëmb Fall mi fi maam Cheikh Ibrahima Fall Fall di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye di beral nuyoo ak ziar Serigne Cheikh Ngounda Fall. moom maam Saalihu Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall di suñu yaakaar tey ëllëg di ñaan suñu boroom kattanal ko ba li mu am yéene liggéeyal ko maamam ju tedd ji maam Cheikh Ibrahima Fall mu defee ko nu kawe njortam te ànd ak mbokki taalibe yi mbokki am mbégte dellu siwaat si jotaay bu màgg bi ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall <clears throat> di seen émission Jazboul murid am mbégte lool kon teewaat fi tey gannaaw ab bër bu xaw a yàgg lool te di ko jéggalu bu baax a baax fas yéene dellu siwaat incha allah mbokk yi si yeneen i anam te dara du si génn maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina di ziar bu baax a baax sama jëwriñ sëriñ Maamoo Ndaw baay Fall di am mbégte lool ndeysaan lii moon nañ ko lool Fall yaaram <laughs> toogaay bi di la ziar bu baax a baax te ziar mboolem njabootug Baye Cheikh Ndaw gi tàmbalee ko si Baye Amdi Moustapha Ndaw di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te maa di dollee ziar euh, Cheikh Mouhamadou Fadal sëñ Fallou Ndaw mi sunu borom dogal si fan yi rek mu jiitu ji ñaan sunu borom dolli ngërëmam barki bày Cheikh Ndaw barki maam Cheikh Ibrahima Fall di ziar Baye Assane Ndaw mboolem njaboot gi rek sëñ Basiru Ndaw fàttewuñ ko Baye Bas di ziar bu baax a baax euh, Baye sëñ Modou Ndaw ak mboolem njabootuk bày Cheikh Ndaw ñu leen di ziar bu baax a baax di la ziar bu baax a baax waaye fàttewuñ nag euh, Baye Aliou Ndaw waaw sunu sunu sunu xalifa sunu jëwriñ di ko ziyaar bu baax a baax wax dëgg yàlla sëñ Mamour kon dellu si waat tey si talaata gi incha allah fas yéene nag jàkkaarloo mbokki taalibe yi jëbbal leen nag tey jotaay Jazboul Mouride tey mun naa ni ñoom ñiy seetaan ñooy invité yi sëñ Mamour asalaamaaleykum mbokki na moon na la tabarkàlla waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Aliou aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk ñuy baaxu topp saa su nekk ci talaata ci waxtu wi ci seen télévision làmp Fall si jës bu murit ñu ci waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi sant yàlla di julli ci yonenteen bu tedd bi di ñaanal sunu yaakaar Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te di sàkku ci mboolem jullit ñëpp ñu ñaanal ko ba ay naalam lépp mu yeggale ko ba sumb yeneen tañ fekke ko di ko ñaanal baax Serigne Cheikh Jëm mi nga xam ne moy sunu buntu ci mam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan sunu borom mu dal ko fa yagal te wéral ko ba ay nalam lépp mu yeggale ko euh, ba sumbu leneen diko ñaanal mbolem jabotuk mam Cheikh Ibrahima Fall gi yep nak tambale ko ci keur Cheikh mudou Moussa Fall ba ci keur Ngonda Sabigé <laughs> di ñaanal bu baax jabot gi yep tam sama borom dool leen fa yagal waye tambale ko ci keur Soxna Fat Fall Cheikh ba ci keur Ma Oumy Fall ak mbolem jabotuk mam Cheikh Ibrahima Fall gi yep waye di ziar bu baax mbolem ñi nga xamne dañoo topone mam Cheikh Ibrahima Fall te diko ba làq ngërëmam tàmbalee ko ci ñi njëkk a joxe seen bopp ca gànjool mm-hmm. ñooñu nag su ma ci tuddee Cheikh Babacar Lo tudd sëñ Modou Guèye Ñaay ak sëñ Mun Njaay Ñaay day daal di yóbbaale ñëpp rek mm-hmm. ndax ñëpp dañuy daal di dugg ci biir mm-hmm. waaye ba ci ñi nga xamante ne bii sëñ saa Saafal leen wàcce ci daara ji ñi nga xam ne gannaaw Cheikh Ibrahima lañ door am ngërëm ñooñu mooy ñu mujj ñi nga xam ne topp nañ maam Cheikh Ibrahima Fall ñii ci ndaw lañ leen jox Cheikh Ibrahima ñii itam daanaka ci juróom seen juróom benn weer sax dañ leen jox maam Cheikh Ibrahima Fall loolu amoon na kon maa ngi siyaar loolu day matériel lépp Seydina Alioune nga xam mm-hmm. ne bawuma kenn ci koo xam ne da ngay béggee ak a topp liggéey mm-hmm. maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi muridina mm-hmm. mboolem suñu kilifa yi sant Mbàkke itam eh, saa su ne lu ñu denc di ñu di yeesal seeni cofeel ci maam Ibrahima Fall lu ci bëri tamit dañ koy dégg saa su ne ak ñu ci bëri dañu ko jottali ñooñu itam daanaka damay daal di tudd damay ciy jiitale sëñ Thierno Mbacke Gelongal Eh, mu mu yóbbaale ñëpp. <laughs> waaw su ko defee nga xam ne nit moom ca mag ña la bokk. te mhm. xam nga ne saa su ne day wax ne. nee na ni ma bëgg Seex Ibra Faal du mbëggeel gu ma du mbëggeel gu ma tey ni ma bëgg Sëñ Tuubaa laa ko bëgg. ndeysaan <laughs> waaw ñu ngi ne ñu ngi koy ziar di ziar mboolem njabootu Sëñ Tuubaa. yàgg ko loolu tamit <laughs> baax nag. waaye xam ngeen ne boobaak léegi itam ñi ngi door a teewaat ci jotaay bi waaye ni ngi ko waxee léegi rek mhm. kenn ci suñu waajur sama borom dogal mu jiitu ji ci biir koor gi ci fan yu mujj yi muy sëñ fàllu Ndaw di doom Baye Cheikh Ndaw toppoon ci ñam Amdi Ndaw mi nga xam ne tey moom la ñuy xoolee Baye Cheikh Ndaw mm. ñu ngi ñaan sëñ Fallou suñ borom yokki ay leeram tataas ci barkeem mm. Mm. xam nga ne yii xew moo tax sax daa euh, daanaka rek lépp dañ ko daal di yamale ca jamono booba waaye ñu ngi ñaan yàlla njaboot gi sama borom bàyyi leen fi di ziar baax sëñ Amdi Ndaw mu yàgg fi waaye di ziar mboolem njabootu Baye Cheikh Ndaw gi yëpp itam muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw mboolem ñi nga xam ne ñëpp bàyyi Cheikh moo leen maa ngi leen nuyu baax di jël nuyu yëpp nag teg ko ci loxol sama kilifa sama xalifa mu sëñ Aliou Ndaw mu tegal ñu ko ci loxol mboolem yëpp tam eh, di leen ziar baax sëñ Aliou Badara di yi nga xam ne nag saa su ne ñu ngi woote di laaj lan ñu téye waaye xam ngeen ni lépp ndigal ndax maa ngi fàtt maa ngi bàyyi maa ngi fàttali murid dina leen ah, ñëw gi moom xam eh, dafa munta ñàkk ah, ndax liggéey bi moom faw rek la ñu sëñ Muntaxa waxoon du laal suuf te tam du la am kenn fas yéene wul mu laale suuf say loxo. Mhm. te dañu fas yéene kon taw ko rek. Mhm. xam ngeen ne koroog ci samedi bi rek. Mhm. bi ñuy waajal ngir ubbi yoon wi ci dimanche bi. signal yi ak pëste fu bëri bi ah, la daal di xëy ci samedi bi rek daal di taal oto ah. <laughs> ñëw fekk ma Tuubaa ne ma faaw ñu dem dem defi jës ba murid wala murid yi sax ndeysaan ñu ngi gis naan kon gars yi egsi ngeen ñu ne waaw ah, <laughs> ñu ne aca bokk kon <laughs> waaw mm, c'est c'est moom dañ ci ne rek ndax maam Cheikh nee na ab liir bu ko mbubum daaw jotee ren liir bu màggul. kon nag faaw daaw day dox ak Cheikh Ibra ko wax. naa kon eh, di ñàkk ci kanam tuuti rek danañ ak mbokk yi. ñu ziar baax nag sëñ Maguette Niang ak sëñ Omar Doumbouya. waaw nekk ci keppaaru Serigne Cheikh Jëmm. dëgg la di ay jàmbaar lool di leen taxawu ci liggéey bi. ndax foofu sax laa bëggoon sëñ Mamour nga duggee. Mhm. ndax tey moom dañoo bëggoon rekk jotaay bi. Mhm. Euh, jébbal ko mbokki yi nga xamante ni saa su ne ñu ngi euh, bàyyi xel jotay Jazbul mourid mhm. nga xamanteni ci ndortel la mhm. boba ak legui eh, tollu na ci juróom benni at mhm. ndax nak ñu ko tambali won ca 2014 tambale ka ak eh, Baye Abdou Niang yalla suñu borom dolli yi ngërëmam di mag mo xeyni marqué nañu lool ndeysaan ci jotay bi uñ maawur maa ngi fàttaliku guddi googee ndeysaan nga xey ak mom ci dekk bu sel ba di <laughs> Touba and ak mom ba Ndakaaru nga xamanteni ci jaayante gu metti ndax téméré atam daanaka bu matul woon it li ko manqué bariwul woon si jamono jooju mhm. ndeysaan ànd ak moom ñëw mhm. keroog mu mu mu bégal àdduna gépp mhm. ndax kàddoom en direct mag moo xamante ni danaan la ba may jébbalu si maam Cheikh Ibrahima Fall am am piccum jaxaay laa ko laa ko joxoon ak wax yooyee nga xamante ni moo si àndoon te boobu ak léegi sëñ Mamour 2014 euh, ak léegi di juróom benn at ni ma ko waxee euh, ñu bari jaar nañ si jotaay bi kilifa yu baree baree bare mhm. marqué ko loolu nag mhm. maanaam indi mam Cheikh Ibrahima Fall ca mhm. démb nañ ko xamee woon mu doon lu am solo waaye nag euh, laataa ñoo tàmbaleek mbokk yi ndax li ñu bëgg mooy tàmbaleek ñoom ubbil leen ligne bi bu ko defee xam ni ñoo moom émission bi bu boobaa ku si am lu la mag nettali wala waajur lu mu la nettali wala li la gën a marke ci émission bi bu boobaa ñu déglu ko nga daal di euh, feeñal sa yéene ndax ah. mbokk yi yàgg dañ koy bëgg te xam nga émission bi ñun dañuy ñëw rek di ko def ah, daanaka ca euh, néewaana li ñuy tëj lañ ñu bëri ah. day sànn bëgg di saafonte ak di indi ay seere mm. kon li occasion la waaye na xam naa li ko jiitu mm. sëñ Mamour mm. di si bu baax Cheikh Ahmadou Bamba li waaw ndax loolee ngay wax si passef bobu mom lañ koy delo rek ah. ndax keroog yaakaar naa ni ñew bi ah. euh def na lo xeyni dal ah. nañ ko kalamé ak sunu maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Ahmadou bambali di ko ziar bu baaxa baax ndeysaan ci passef gu rëy gi waaye loolu yépp Cheikh Ibrahima la rek kon xam ngeen ni euh, amon nañ yene kaddu Serigne Omar dumbia mi nga mm. xamanteni kaddu Serigne Cheikh Jëmb Fall mm. feeñ ci jotay bi ci li nga xamanteni mom mo xew mm. lata xat-xat yi di nag liggéey bu reey bobé institut islamique bi ba mbir mbiri eh, jamono fi mu toll mm. nga xam daa war àdduna si mbas moomee yàlla na ko suñu borom teggi ci nu mu gën a gaawee ak ndog yi fi jaar yooyu yëpp kàddu sëriñ bi mm-hmm. la woon waaye kàddu yi eh, incha allah ñàkkul ni dañ si dellu si beneen yoon mm-hmm. eh, te ñàkkul ni sax xëy na balaa jotaay wi di jeex mm-hmm. incha allah dinañ mën a am sëñ Omar Dumbuya wala sëñ Mëgay ñaa waaye it ubbee leneen it sëñ Mamour di euh, sunu sang bu tedd bu Serigne Cheikh Mounda Fall. Mm-hmm. di ko ñaanal Fall mu yàgg fi lool te ànd ak wér njaboot gi. Mm-hmm. ci Pastef gu bari géeg yërmande géeg mbaax gi. Mm-hmm. maanaam sol dàllam yu tedd yooyu. dëgg tànkam yu tedd yooyu ñëw ba fii si barab bii nga xam ne moom lañ tuddee maamam. di ko fi liggéeyal. nga xamante moom liggéeyu maamam rek ko ñor. Euh, yéen donc mbokk yi fii si barab bi Lamp Fall. démb ci lu rafet àdduna gépp rafet lu ko. ñàkkul ni loolee dinañ ci dellu si si extrait bu ndaw doog a ànd ak mbokki taalibe yi si ñaari point yooyu sëñ Mamour waaw signal yi jërëjëf di nga ngi santaat bu baax a baax nag xam nga sëñ Cheikh ndaw moom day koo xam ne ci nun moom saa su nekk rek eh, damay faral di wax ne fii barab bi bokk na ci ñu ngi dimbali bu baax a baax ndax pas-pas bi nga xam ne moom la amee te te ba te jëlee ko ci ay waajuram jëlé ko ci maam Cheikh ba Fall té diko doxé pass pass bobu sa su nek boko né jakk lolu nga yëg ci mom ndax Cheikh ibrahim lay dund Cheikh ibrahim Cheikh ibrahim lay xéñtu té mom amna yéné fuñ fu mu fekk nu fa amna yéné itam lepp lu mu nekk boole ñu ci sa su né xam nga né ba da dafay dem di ñu kon koku day wax sa su nek na sama alal ngeen te nit fu alalam nekk war na koo saytu. Mhm. ba si mission yi biti réew yi. si bëri biti réew sax gis nga daje nañ fa. ay yoon yoon yoon ak yenn barab yi nga su fa day wax ne gaa yaa ngi ñëw léegi. te loolu xew na ci bitim réew. ci biir bërëb yu bëri ak fu bëri foo xamante ni bii mhm. dañ fay teg suñu tànk mun nañu bu ngeen demee ka fa nekk di jëw na ngeen ko jox ma téléphone wala ngeen ne maa leen fi la ci yoon wi ngir nu mën a gëstu ak xeeñtu maam Cheikh Ibra Fall waaye loolu nag defu ko ci zahir mais ko def ci baatin da koy def ci baatin boole ci ba si dëkk cosaan yëpp dëkk cosaan yi bu ci nekk day am yéene léeg-léeg sax foo xam ne duñ ko xam mais moo ñuy wax la fa ne wax ñu ka fa ne wax ñu la fa Cheikh Ibra def mm-hmm. boole boole ñoo kooku ngir ñu dem mm-hmm. pour xeeñtu mm-hmm. doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall foofee li fekk le temps ñu ànd ak euh, sëñ Magay Ñang wala Serigne Omar Doumbia mm. ci jotaay bi ndeysaan ngir uh, joyal ay kàddu cant ak ngërëm mm-hmm. jëm ci uh, Serigne Cheikh Jëmb Fall mm-hmm. ci ndogu yi nañ ko taxawoo waaye mm-hmm. liggéeyu institut islamique bu rëy boobee nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Muntaqa moom Cheikh Mouhamadul Bachir yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wër moo ko jëbbal Serigne Cheikh Jëmb Fall maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan mu yàgg fi loolu tànd ak wër ngir ñu liggéey ko ab institut islamique ak ak juma uh, li fekk ñu ànd ak mbokk yooyu ñu joyante lu jëm si wàllub cant ngërëm jugee si sëriñ bi dañuy ànd ak euh, waa régie mm. euh, seetaan benn extrait bu ndaw mm. ci nganuk Serigne Cheikh Ngounda Fall gi démb ci barab bi mm-hmm. bu ñu noppee mbokk yi Serigne Magueye wala Serigne Omar bu ñu tàbbee mm-hmm. ñu mën a nag ànd ak mbokki taalibe yi euh, ci jotaay bu tedd bi ñu jegleen maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Mamour kon ñu ànd ak waa régie ci liggéey bi nag liggéey nag mu néew néew ak lu bari bari nangu Guy Thiams te mbir mi mën na ni gaañ te des ko na naa ni gaañ te du barkeel barkeel nag dafa yomb ràññ bi daan wax ni def te yàlla tax ak jëf ak wax te yàlla tax nee na dafa yomb te dafa jot te ku dégg seen seenu liggéey gis ko ñëw fii xam ne yàlla rekk leen di tax congrès nag mu am si liggéey bi itam ca njorto ba léegi dara génn ci Seex Ibra ndax kër nga xool sëñ Mbay Mbàkke surtout Seex Ibra hmm? surtout Seex Ibra ñoo bokk Seex soo fa masaa dem yor ko daan la soo ma naan dogal léegi ma dog suñ doon bañ waaye ne ko dama dangaa bëgg leen di dog waaw suñ kon ca ndorteel ba léegi te génn seex di am solo nag mooy ak bëgg ak bëgg nag bu yàlla taxee itam te mu dëggu yàlla kese lay doon yàlla kese nag du am tànk kanam bi may tasee yéen kër si Moustapha Seye Saloum ñu waxtaan ma doon ko indi palaat dama ko wax moom mel ni ko yéen day seen kii bi bëgg nañ koy dëgg waaye du agsi Thiès nga xamal ma ne léegi xamal rek barki dem bi ngeen tegee kii boobu am na ñoo xam ne dañ am na ñu leen woo bàjj ah, naan seetaan nañ ko loo gis nag day am ab tool ah, koo fi gis nag mu wut lu baax di liggéeyal yàlla ak njaal benn am na fu mu waaye ay la yowoon lañ ay la dégg nag ku ko dégg am na fu mu jaar doo ko dégg waaye yàlla bu fekkoonte ni da ngay tëb tëb rek ko wala nga liggéeyal ko daal am la nga bëgg kon ab saay-saay man ko yonente bi saasam suñu borom dañ ko lu ma bind yàlla ci gën waaw ki gënee suñu borom ci binde bi suñu borom mën na ko dimbale te du ko sonn sàmmaan naxaan na ay commerce loolu la def ñaata xare la xare Makka la gane àdduna ñu génn ko dem Madinatul Munawwara Sëriñ Tuubaa ba mu jógee di liggéey Sëriñ Tuubaa suñu borom am na fa mu jaar Cheikh Ibra noonu keneen noonu nit ki nag soo ko dee topp te topp nga dëgg fa mu jaaroon ci ay coono ak i natt nga jaar ko santal yàlla te dalal sa xel te xam ne ne Bawol la ci boppam ñii nga bokkal liggéey jiite ko koo ci xamante ni tey am na ab sa ab savant yàlla tere wala kenn am ko boo ko gis danga naa kii du sama sab soo ko dee topp nit ki topp ko dëgg comme jaaroon ci ay coona ak i nattu foo ci jaar rek dalal la sa te xam ne baw lante comme dalal leen sa seeta fa ngay doorte ci kër suñu bay mbàkk ja ba fi seetal fi nga jaar fépp ci lijjanti ay kayit wax nga ni ba nga wut autorisation te muy ñëw da ngaa tëb rek sa bëgg nag ak sa pasteur ci la la sa borom di xanaa xamoon murid bu dëggal bu sell mart ba wilaaya wàlluyu la yor murid bu dëggal bu sell mart ba wàlluyu la yor loo ñaan lu fekk sa mooy li nga wax ne li ngay def tegoo ko fenn am nga foo ko teg sëñ bee la ñor sëñ bee la ñor yàlla bokk ñor mi sëriñ bi daan wax ni nit ki dinaa soo jaaxlee sa xel dem ci moom boo jàqee taxawoo ko nee na ko ko war ngaa moom am moytu te nee na ñu wuy si lu ko def yàqu te woote ñoo wuyu si lan daanaka jaar nañ la ne seen bi du ñëpp la wuyu si ñëwal seen borom du ñëpp la si soo ko nekkale nag mu nekkal te ngeen ko nekkal mu tax nekkal kon bu la yàgg nekk ci leneen ay lay yëwal joo dégg rek ka ko dégg am na fu mu jaar door ko ay lay mënta ñàkk am na ay lay mënta ñàkk dem bërëb sàmm ay lay mënta ñàkk dëgg te noonu nekk jamono joo xam ne li ma leen koy wax yéen yéen dalaa yemale leen yaa baax ak yaa bon la naan yaa baax jortoon ni dafa bëgg nga gën a baax waa jàpp ko ki bu ko def am na jort jàppal ni dafa bëgg nga soppi ku baax su bëggee nga soppi ku baax dalay bàyyi ngay muur sa mbon googee mu dala xool ñu mel ne xale bi def naka si dul nga def ko xaj ay campaal li ngay def dangaa bëgg ma soppi ko soo ko dégloo nag doo dem nekk ca la nga nekk te ñaan yàlla saa su nekk rek mu gis ci yow ak mbaax lu baax na ku ko bëgg faaw ñu ngaan la seet leen ca ndort ba ñuy tase kër si Moussa ba di leen wax ngeen ni ma léegi léegi télévision bi def naa am na fu mu la indi lool na mooy indi wutin moo jaf nanu nekk sëriñ bi loolu nga wax sëñ baara daal wax kenn am kenn am ko tuwaa leen fi def kenn def tey kenn ku ci muy Cheikh Ibra Fall muy keneen muy maam Cheikh Issa Dieng di keneen ba nga jógee du topp sëriñ bi sa jënd jëm ànduloo doom ànduloo sët ànduloo jarbaat ànduloo soxna tey ku bokk sa dara rek gërëm nag moo leen ko may gërëm nag caaxaan lañ gërëm caaxaan lañ yaar yi kenn mën koo def ci nit nangu muy ngërëm ak xam-xam mënoo jàngal nit ki ba am xam-xam nga mer ko nangu xam mënoo nit mën laa liggéeyal ah ba nga gërëm ko mer ko nangu nangu gërëm gërëm nag da ngërëm boo dem ba ci gott ba nga naat faa tumuraanke ngërëm la fekk jërëjëf alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi kon eh, lii ab eh, jukki bu ndaw la rek ci mm. ngan nganu démb gi nga xamante ni Serigne Cheikh Ngounda Fall ñëwoon na ko si eh, barab bii di Lamfal télévision alhamdulilahi rabbil alamin ñu gën a santaat suñu borom ñu bëgg si lool ndeysaan di yéene gu rëy goo xamante yàgg na ko am ndax ni ko waxee sànq maamam rek ko ñor te xam na ne liggéey bi yëpp liggéeyee ko maamam la maam Cheikh Ibrahima Fall mm. dem mu ñëw fi yëkkati fi kaddu yoo xëy ni bu dégg ku nekk rek maanaam dina am lu mu def si yow mm. li nag doonoon ab jukki sëñ Mamour mm. ci lu démb li li fekk nag dinañ si ñëw incha allah ànd ak mbokki taalibe yi intégralité en intégralité incha allahu rabbi <coughs> ci lu dul yàgg dara lii euh, ab euh, ubbi la woon rek euh, ngir wan sëñ bi cëral nañu lu rëy loo xëy ni li ko dalee si jëwriñ Alioune Thioune ba si euh, mbokki taalibe bi fii euh, waaree yëpp di ànd ak euh, jëwriñ si liggéey bi yëpp bëgg nañ si. te di ñaan sëriñ bi yàgg fi loolu te ànd ak wér sëriñ Mamour. Mm. tubaarkalla jërëjëf signal yi ñu ngi santaat bu baax sëriñ Cheikh Ngounda di ñaan suñu borom mu dool ko fa bu baax. ci xam nga soññee bu am solo bi nga xam ne. defal nañu ko démb fii ci barab bi. Mm. te ko xam ko ko xam-xam na ku ñàkk jot la waaye nag. maam da koo jaral maam Cheikh Ibrahima Fall moo waral mu ñëw fii. Mm-hmm. xam na barab bi am lañ ko dippe mm-hmm. maam rek la fiy xeeñtu si ndax moom saa su ne moo fiy jib tey firnde la ci tey xam nga day topp jotaay yi ñu ngi gis lépp <laughs> dara ump ko tey nag mën naa dem seeti murit yi ngir eh, nem ku ji leen waaye xool seeni toogaay <laughs> loolu ak cant la ci noonu ñoo sant bu baax nag ndax pare seen xel bu baax waaw dalal xel bu baax ndax wax dëgg dalal na suñu xel bu baax a baax xam nañ ne <laughs> santaat nañ daal bu baax a baax ndax itam kuy ne ci barab di fa liggéey sa kilifa ñëw nemmi ko si la xool ci li nga nekk xool li nga toogee loolu ak cant la ci yow. ñoo ngi santaat bu baax tey gën a nag soññaat suñu bopp ci ñëw bi. ñu ngi ci soññaat suñu bopp bu baax soññaat itam suñu bopp ci barab bi. ngir xam ne daal eh, sa kilifa moom fépp fu la fekk. saytu xam nanga nga toogee ñëw yëkkati ay kàddu kaddu yi ku ko dégg xam ne kàddu yoo xamante ni bii ab soññee la. waaye kaddu yi mbégte la ci moom. waaye kàddu yi itam tamit xam ne liggéey bi ab liggéey la boo xamante ni bii liggéey bu seex Ibra Fall la. te na ko ci biir waxtaan wi. ndax looloo waral mu yokk waaw Cheikh ba Fall nee na yoon wi moom da ngeen ciy jàpp ndax su yokkoo ñu jiñ leen ko kon nag lii ñuy defal sëriñ bi nañ jàpp ne suñ bopp lañ koy defal ndax kenn ku ci nekk la ngay def jariñu moo tax nga di ko def waaw te itam du du du du du mooy borom kenn ku ne na nga xam ne lépp loo yéene ngir defal ko sëriñ bi mm-hmm. eh, sa bopp nga koy defal mm-hmm. ndax li ngay def sa bopp yow nga lay jariñ loolu moom ku ne xam na ne compte la rek la nga la nga fa def banque la la nga fa def ngay ngay ngay ngay ngay ngay rétiré su ko defee nag kon ko xam loolu loo def da nga koy xeeb mhm. mooy Cheikh Ibrahima Fall sax sóora yi yëpp nee naa wax naa ko ay yoon yoon mhm. yii fi xew nii sax moom fi ne bokkutoon ci programme waaw fi ne teraange yii ngay gis mhm. ak ku ne di di tëbaka dal di di gis ne yëf yaa ngi neex la ko Cheikh Ibrahima waxoon ko tedd ki ne yëpp su Cheikh Ibrahima sóoraale wu ko sëñ mu ne leeral nanu ko waaw ndax suñu saam suñu bu xaadir laa dégg mu ne mu jug sëñ Tuubaa mu jug Cheikh Ibrahima ci njaarim ñëw na naan sëñ bi Mbàkke mbaa dese nañ fi dara ndax yi fi daan neex lool di <laughs> mbaa dese nañ fi dara sëñ bi ne ko Ibra Fall la ma a waxoon rek mm-hmm. dañuy jaayante da nga ne woon du ne mbaar soxla ko fi kon nag jàppal na sa mbir ëllëg lay feeñ xam nga mm-hmm. li nga fiy gis mm-hmm. aw mosandi la rek sëñ Moussa Ka wax na ma ko mosandi leen ndax li aw mban la rek mba neka laala buñ ko te junni ñay la kon loola yëg guñ ca moo tax Cheikh Ibra moom yii yëpp <laughs> sooraale bu ko woon <laughs> waaw moom waxoon na ko sax euh, sëñ Mbàkke bu sa nee na loo gis ci jamono jii muy nuru dara ci moom danga xam ne keroog ba mu sukkee ci kanamu sëñ Tuubaa ba jóg mooy faxasite wóom yi waaye waaye lam jaayante sëñ Tuubaa ëllëg lay feeñ waaw Cheikh Ibra Fall kon mm-hmm. yii moom sóoraale wu ko woon sax mm-hmm. waaw moom moom foogu ko woon sax mm-hmm. <laughs> déedéet <laughs> foogu ko woon ndax moom li taxu ko woon a jóg ah, dafa waxoon sëñ bi ne ko lu toll ni mbaar soxla mu ko ci àdduna waaye yow mal xiyaan bu ñu dajee naa mën ñëpp naa mën ñëpp waaw loolu la waaye waaye ci nag bu naree neex bu baxee xeeñ ne waaw moo tax li xeeñ ni fi ne moo tax sëñ Tuubaa nee na naa ko foo xeer yi boo fa xawee koon ba yomal xiyaan du foofu mooy mooy sut gi foofu kenn xamul ah. fu mu doon foofu nag kenn xamul fu mu doon la waral loolu na signalin mooy hmm. ku def bëggu sëñ bi sëñ bi def sëg bëgg dëgg la ah, Cheikh Ibra Fall nag mos sa denc di xeeñtu li sëñ Tuubaa bëgg bañ na ko ba ni mu dégg sëñ bi sax dafa jaaxal ñëpp waaye nag da ngay jàpp ne rek boo ko yàlla programme yi sëñ Tuubaa taxoon dëgg la waaw moom Cheikh ba moom sëñ bee tax mu am mm-hmm. kon nag damaa te damaa jàpp ne la suñ borom wax mooy te sëñ Saali waxoon na ko mooy ñoom ñaar ñoo bokk fuñ bawoo loolu moo tax connexion bi doxoon ci seen diggante mm-hmm. maanaam bu bu jéggi day te itam damay wax naa ko léegi seex ci bëccëg damay wax ni euh, dafa mat kenn ko ne nga soññ sa bopp ci ne mm-hmm. ki doon wër yàlla. Mhm. na damaa bëgg a yegg ci yàlla. ndaw la woon si Zaire waaw jamono joojee koy wax. ñaar fukki ak juróom-ñaar la am. Mhm. waaye kam gis na ko yàlla laa gis ci yow. Mhm. damaa topp tànk mu dugg ci kër gi su ma génnee tànk ma génn kër gi. dëgg la kooko fanweeri at la am. loolu kenn ku ne war nga caa jànge waaw ñu fi ne ñun ñii toog rek fi ne nii. moom gàtt gàtt suñuy at romb na foofu. kon waa léegi kon loolu lu ñu ca mën a jànge noonu. loolu lu rëy la. kii wut yàlla ñaar fukki ak juróom-ñaar la ki mu gis yàlla ci moom fan at la am. dëgg yu toll noonu nga taxoon naan dama bëgg a yegg ci yàlla kenn mosu koo dégg ci ku dul làmm ñu Cheikh Ibra Fall. ndax mhm. kon kooku kooku njëkk wax wax na wax ju rëy du wax ju ndaw waaye sëñ sëñ Tuubaa it xamal ko na bu xamoon fu mu doon fekk mhm. na ko damaa topp tànkam kon ah. day jeex li mu gis wér na ci moom am am nay am nay bëti xol am na bëti xol kooku tànneefu suñu borom si li nga wax rek doxul ci kumpa de mhm. déedéet ci loolu leer nañ Cheikh Ibra bëccëg lay dox ci lu leer nañ. waaw moom bëccëg lay wane na ko saa su ne. wane na ko saa su ne si si si jëfam. Euh, ci jëfam si si insaan yi rek. waxuma sax si mbiri baatin waaye insaan yi rek maam euh, nite gi rek. nit nite nite Cheikh Ibra rek. maam bu ñu si taxawoon rek nga xamante ni wax dëgg yàlla ci lu leer nañ. nga xamante ni euh, ñi nga xamante ni ñoom lañ jàpp ni. ñoo jekk woon jamono. buñ koy wax moo xam wàllu ci ci ci ci nasaraan gi. moo xam si wàllu buur yi maam ñi jekkoon zaahir rek. maanaam euh, dañoo dañoo dañoo yéemoon Cheikh Ibra mm-hmm. waaw saa suñu jëflanteeg moom rek dañ koy yem te loolu yaakaar naa ne taarix ñun ñëpp jaar na fi ay yoon yoon si émission bi mhm. ñu leeral si ay diggante yu bare diggante ba tubaab yi mhm. ba tubaab yi def si ñoom CDM yooyu nga xamante ni mhm. siiw na lool wane ni c'est un fin diplomate remarquablement intelligent daal di wax fi nga xamante ni fa la jaar yëpp ba si it euh, ñi nga xamante ni sunu borom ñoom la ko dénkoon loolu yëpp tubaab bi seere ko si ñoom te ko xool gis ko muy euh, doomi euh, sox doomi doomi doomi buur yi nga xamante ni te it vrai stratège la li tubaab di wax ndax li taxoon mu jël doomi buur yooyu yëpp dajale leen ngir doomi buur yooyu nga xamante ni seen i maanaam seen i askan xaw ma ni ñu koy waxee seen i tribu dañoo juboowul woon waaw ku si nekk bu fa duggee jël fa kenn ñoo ñooñee yaakaar naa ni li waroon a dox seen diggante ndax gis nañ ni seen i njaboot jaxasoo nañ yaakaar naa ni loolu yëpp nga xamante ni Cheikh Ibrahima xel mi ak ak ak ak ak ak ak ak euh, maanaam euh, gëm sëñ ba gi foo ko natt rek mm. wees na ko si ku mën di jëflanteel mm. kon nag euh, loolu moom ni mm, sëñ Mamour maanaam cedd ak sëriñ si daal bu ñu laalee mm-hmm. Cheikh Ibra tax ndax bi muy ñëw daa fekk cedd yi jëm ne sëriñ si jëm ne duñ laalee mm-hmm. Cheikh Ibra Fall nag te nag xam nga tamit ceddo moom xam nga daa gaaw yëg boppam <laughs> yoo xam nañ ci dara ndax suñuy maam ca lañ bokk mu fexe ba dimbali leen mu fexe ba dimbali leen maam dimbali leen seen biir mm-hmm. ba pare dimbali leen ci diine gi waaw ah, ndax kenn ku ne mu war a defar mm-hmm. defar lu bokk ci yow waaw mm-hmm. ah, que loolu moom buñ ko duggoon dana yaatu ndax njaboot gi ci feeñ bëri tey boo doogoon ci yoon wi am na ñoo am seen i maam. waaye comme tey démb la woon waaye comme tey dañoo dalal dañoo dalal mbokk yi ñuy seetaan. waaw loolu moo tax am na ci loo xamante ne ñu leen ñu tàbbi bàyyi ñoom rek te man fi ne tey dama <laughs> bëgg ku ne ma tey moom gars yi woote. Mm-hmm. dama bëgg ñu dellu tey rek laay xam ba xam ni ñu doon topp jës bu mu itam de. mu ngoog li ñu doon xanaa ku dugg da nga ñu dellu ci groupe bu njëkk ba. ndax ndax <laughs> jaar na fi. di ñu ko waxee yàlla suñu borom dolli mm-hmm. jaar na fi yàlla suñu borom gën ko fay yàggal te moo dëgg wër Mhm. Baye Moustapha Seck Baye Fall di ko ziar bu baax a ah, baax di ñaan mu yàgg fi loolu tànn wér suñu Baye ju tedd jooji nga xëy ni moom ah. la macha allah Baye Ndiaga Diop Baye Fall jaar na ah, fi nga xamante ni ba léegi émission bi dafa mel ni tey suñu Baye Adama Sarr mm, mm. jaar fi jaarati fi ay yoon moom it ndeysaan di ko ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla suñu jàmbaar yi Baye Ndiane Diouf di ñaan suñu mm, borom gën a yokkee leeram ndeysaan sëñ Jaaji Taal di ñaan suñu borom yokkee leeram wallaahi alazim nga xamante ni ñu ko ku ku ku ku tudd ba si njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi. maanaam euh, ñu ci bare ci ñoom. sëñ Cheikh Bintu Fall. jaar nañ ñu ngi koy jaar ñu ngi leen di jaar bu baax a baax wax dëgg yàlla <laughs> kon mbokk yi ku si nekk war nañ mm-hmm. mën a feeñal seen yéene. Mm-hmm. si euh, jotaay bi bañ ko dalee topp ak léegi. Mm-hmm. mel na ni tàmbali na yëglu waaye nag ku dugg moom. bëggoon nañ nga indil ñu benn ci loo dégg ni sëñ Mamour wax na ko. wala si ñu baax ñooñu asalaamaaleykum wa rahmatulah yoon wi dana Cheikh Ibrahima toll noonu de. waaw waaye nag na ñëpp tàbbi rek. <laughs> salaamaaleykum waaleykum salaam. sëñ Badara. Fall Serigne Fall Serigne Fall Baye Fall. ah Serigne Fall Baye Fall. maa jaar bu baax. waaw xam naa nag sëñ sëñ daam boo leen ñu mënoon dugalal large bi moom doon na am solo lool rek tey ñu jàkkaarloog sëñ Mamour jàkkaarloog euh, ndongale Alioune Badara bu ko defee nag. mbokk yi mën a taat bu baax bisimilah Serigne Fall. maa ngi lay ma suñu bu baax a baax. waaw alhamdulilah bu baax. maa ngi koy ñaanal jàmm joo ànd ak ja jaatoo yaatu barke Sëñ Ibra. amiin barke Salam Cheikh. maa ngi siyaar baax sama sang ba sëñ Cheikh Ngonda moomu maa ngi ko seetaan léegi mu génn ba am solo boobu. ndeysaan macha allah alhamdulilah bu ndaw la rek waaye dinañ ko indi nganam gépp ndeysaan sax mm. dinañ ko teg si télé bi bu soobee yàlla ñëpp mu gis ni daal cëral nañu cër wu rëy wax dëgg yàlla lii man kay moom ma loolu kay moom am na solo loolu wax dëgg yàlla moom de fu ma am fa nekk rek jalal na ko dem fa ma wax dëgg yàlla kenn alhamdulilah maa leen di siyaare bu baax di la ñaanal jàmm maa ngi topp jotaay bi. alhamdulilah alhamdulilah di siyaare mbokki Baye Fall yëpp di siyaare maam Sali Fall suñu falloo waa kër ga yëpp daal. alhamdulilah. <laughs> jërëjëf suñu maam suñu bakara. loo ñu mën a ci Cheikh Ibra loo jàpp. ah Cheikh Ibra de moom wax dëgg yàlla moom moom xam nga barki démb bi bi bi ndefee ñaar fan ci weeru koor yi Dakar xam nga kenn demul Thiès. Hmm. waaw. groupe dëkk bi sama dugg ma ne leen tey moom day ne laaj koor. ah di. ñu ñu ne ko suñu kóor góor man nag kenn ku ne wax ci maam Sada Fall benn baat rek. ah di waaw. man daal loolu laay ko ñaar fan yi paas kii bi daal. man moom laa def. Mm-hmm. waaw bu defee ñuy dugg kenn ku ne wax ci ma ma léegi man daal man daal xeeb nga ci benn xam-xam. waaw du góor du jigéen du mag na la kenn ko la waxal ma ci maam si dafa bon benn baat rek. Mhm, <laughs> ñu demunu Thiès demunu Touba waaye Dakar gu ñu nekk ñu xam ne tey la ñaari fan ci weeru koor. waaw waaw loolu de tey ñu koy sàkku ci yow tey. doon naa maam Saliou Fall di ñetti mbir ci ñun. ñu ngi koy sàkku ci yow tey de bisimilah. Mm. waaye keroog groupe ba xumb na lool lool la wax di yàlla. Mm. waaw maam Serap Fall wax di yàlla moom comme que moom suñu tubaab dafa dafa jaxasoo ak moom. waaw ndax keroog bu mu koy dama bëgg àgg ci yàlla moom. Mm-hmm. yaakaar naa wax boobu kew lañ ko mës a dégg. waaw mhm. ah, wallaay dëgg la. sëñ su ma xoon fi mu nekk dama fekk. Mhm. mu ne ko dama topp tànk ba mu sëjoo ba ma génnee tànk bi rek. Mhm. ma génn dëkk bi dem bande fekk tànk baa ngi ci yow du ma dem te wóoruma tànk wala muy. nga nga dafa ma li ma mu xam ne am na am na lu ko am na am na am na lu mu àndal. ñu waxante ba ba mu dee taxaw. am na ku ñëw romb kër Cheikh daal di ñëw ni ko maam Seera Fall day ma nga ca mu ngi mu ngi ci waxtu koor. waaw. suñ tubaab ko mën nga ndox. waaw. na ko dégg nga kon taxawal bala ngaa <laughs> ndox. waaw. boo gi duggee da nga am ko la ko ko la diwi. Mm-hmm. tey. ñëw na ñëw ñëw na suñ ko dama bëgg mun ko loo bëgg ko mel ni Ibra mu ni ko loolu moom faat na fa ma ko fa mm-hmm. ko def mm-hmm. waxal ko woon ba yomal xam du laal suuf mm-hmm. ci ci foofu kon sëñ Tuubaa ak Seex Ibra ak cër ñëpp ko soxla woon seex yeeg taalibe yeeg doom yeeg yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp koo ci noonu bu subaa nga mel ni Seex Ibra Faal bu subaa dana yàkkali ba set <laughs> kon daa jom ñu xam ñu xam kooku muy kan jërëjëf ñu koy mbubbu ak ñu ko xamut ñooy tax ñu ko ku ci wax di ci wax waaye ku xam dëgg dëgg Ibra Faal ak norom ko doxinam jërëjëf xam maqamam Serigne Touba ak ak ak ak ak jubam ragale ragalaam ak xam-xamam. comme comme nu Ibra Faare war nga xam Ibra Faare kooku mooy kan kon ku bokk ci moom rek war nga am jum am pësté fa foo nekk ñu xam ne yow mii ci waa Maam Seera Faal nga rawatina suñu sàng bi di sini moom du jox kenn yàlla nuyu la te nuyu la lu lu dëgg rek ci reew ku topp ci ginnaaw moom bu soob yàlla lépp loo ne ci lu dëgg dana sax lu dëgg danga ci teel a teg fa waaw kon xam naa maay wàcc foofu ndax am ngeen a ci ginnaaw. jërëjëf jërëjëfati Sëriñ Fall. maa ngi leen di ziare maa ngi jàkkaarloo yéen nii ci tali wax bi yàlla di leen ñaan jàmm. waaw tubaarkàlla jërëjëf. xanaa xanaa boo gisee suñ jëmm yi nga fasal nu waaw Fall. lu bokk am ngërëmal Cheikh Ibra. waaw muy Serigne Fall Baye Fall di ko ziar bu baax a baax dey saan moom di di di di lépp Baye Talla Gueye ñu ngi koy ziar bu baax. Baye Talla waaw moom sëñ Moussa Moussa Abdou Khadim. asalaamaaleykum sëñ Mamadou Dalal salaamaaleykum xam naa boole si nag di wàññiwaale eh, télé gi wala di ko xaw a sori tuuti dina tax mbokk yi li nga wax ñu mën ko dégg bu baax a baax jëwriñ ñu ngi lay ziar bu baax bisimilah salaamaaleykum salaamaaleykum waa kay da ngay déglu ci téléphone bi wàññi wàññi télé wàññi télé bi voilà day rawante wax ji waa kay waa kay soxna si ñu ngi lay ziar bu baax waaw waaw mhm. waaw waaw Aliou waajal télé bi tuuti rek waaw ñu ngi lay dégg. waaw kañ yaay booy. man la Badiane Fatou ah <laughs> Badiane Fatou ca ca ca ca Soprim ñu ngi lay ziar bu baax a baax wax dëgg yàlla. maa ngi ziar maa ngi ziar. maa ngi ziar suñu baay baabu sëy bu baax a baax. <laughs> waaw maa ngi dolli ziar bi ndiim. maa ngi dolli ziar bi. ndeysaan ndeysaan kontaan. alhamdulilah jërëjëf. naka coono yeeg tës-tës bi. sant bu baax a baax wax dëgg yàlla. di jaay sunu baay bu baax kontaan gis gis gis sama sama sama càmmiñ leen sama xalifa bi rek ndiir. ndeysaan seen ci kontaan ci wax ji rek. alhamdulilah moom daal mu ngi rek faal. ndeysaan alhamdulilah dañ koy ñaanal fan wu gudd ak wér. amiin amiin amiin ak wér le. amiin amiin amiin ci barke Cheikh Al Khadim. amiin amiin barke Cheikh maam Cheikh Ibra bi ñu yaakaar. amiin amiin Cheikh Ibra nag moom mooy mooy yoon wi moom. kuy ñaan daal te ñaanoo ci Cheikh Ibra ñaanoo amoo dara ah hmm. di. waaw. waaw. <laughs> tey ba mu nekk sëñ Touba benn taalibe la am te mooy Cheikh Ibra. Hmm. mooy suñu sëriñ. kon nag nañ jàpp ci Cheikh Ibra nag. Hmm. te xam ne mooy yoon wi. waaw. kenn du Cheikh Ibra li nu jox li nu yàlla jox dañ koo buñ ko xamoon. billahi kenn du jéggaani faal. ndeysaan. kon nag dañu doyloo yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall mii hmm, man de Cheikh ci lay dund waaw ah, te yow xam nga ci dara dëgg la de wër na de <laughs> waaw ndax caatam moo ma uuf fi nga ne fi nga ne baax na de hmm. tudd ma hmm. am na lu mu bàyyi ci man barke Cheikh Ibra loolu man xam naa ko ah, kon maa ngi leen di ah, bàyyi bañ a téye ligne bi <laughs> bàyyi la ak ndaween boobu nga xam ne du suur ceeb. <laughs> kéemaan la de. <laughs> du suur ceeb. Ah, kon nag man talaata di jot maa ngi jàkkaarloog yéen. ah ndeysaan alhamdulilah. sa jotaay de man Lamp Fall rek. parce que borom Touba ah, borom télé borom télé bii. Mhm. yàlla na sutu aw fan ba mel ne a Touba ah, jumaa ji. seen naa leen ci woon jàmbaar la loolu wax dëgg te yàlla bàyyi ko fi. bàyyi fi njaboot gi bàyyi leen fi ci darajey maam Cheikh Ibrahima ñu yaakaar sama xol sedd na sama xol sedd na jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Mamour yal na leen yàlla sàmm sàmmal leen seenu njaboot sàmm leen ci barke maam Cheikh amiin amiin amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf amiin bàjjen Fat Sey mi maanaam euh, waajuram Baye Babou Sey ñu ngi koy ziar bu baax di ñaan suñu borom gën ko fay yàggal amiin amiin moom lépp moog moog maam moog maam Saliou Fall waajur suñu Cheikh mun dañ ñoo ko defandoo ah, euh, ba pare mooy waajur soxna Mariétou Wade ci Espagne ah, ñu ngi koy ziar bu baax a dëgg yàlla bàjjen suñu xol seet wéy wax dëgg yàlla maa la wax léegi ak jërëm mbokk mi salaamaaleykum waaleykum salaam Baye Jël bi. waaw ah, Murit kooku. Allah fay dongal Serigne Cheikh Habib Mbacke. ah di ah ñëwaat nga. <laughs> ah waaw fa faaw ma ñëwaat. waaw <laughs> ah, mun naan leen moom. xam nga ndeysaan damaa guddee wàcc ah, moo tax dégg si rajo bi sax. mais gis la yow Baye Baye Baye Alioune Badara Ndim. ndeysaan barke Serigne Saliou Mbacke sama xol bi ni mu sax moom dafa kéemaane lool. ndeysaan xam nga ñun dañoo amul lu ñu Cheikh Ibra. xam nga dama ne suñ suñ kii ndeysaan waaye Baye Karim. sëñ Abdou mhm. Karim xam nga bala ngaa nekk murid da ngay bëgg Cheikh Ibra da ngay doxe doxee na Cheikh Ibra waaw loolu wóor nag mais man Cheikh Ibra dama koo bëgg sama xol barki Serigne Saliou ci misaal la ñoo xam ne ay malien lañ mhm. yàlla xam ne dégguñu olof waaye su ma ñëwee Baye Fall bi lañ may wooyee loolu nag du leen dama ci sant Serigne Touba baax rek mën na naa leen sama lépp amul leen loo xam ne dama ciy def bëgg ci tagg wala ma bañ bañ ci ku ma ci mere déedéet lépp yàlla yem ci Serigne rek mm. te yéen moom ndeysaan daal bi ma leen jàkkaarloo yéen daal dama am mbégte lool barki Serigne Saliou. tey loolu. te xam nga man comme li ma la xam rek ci sëy ci suba man sama Serigne day dafa bokk ci Cheikh Ibra. te man sama Serigne dama naan adduna maa ci gën a mm. waaw dina naqaree day gën a. sëñ Abdou Mbacke Mbar. ci ñenn ñi waaw soxna bu sa Ndiaye. <laughs> waaw maam Assou Diop bu Ndiaye. <laughs> waaw sëñ bi man damay damay bànneew sëñ Abdou Mbacke Mbar soxna Moussa Ndiaye. maam Assou Diop maam Seynabou Ndiaye. ah yéen daal yaa ngi ciy jërëjëf am nañ mbégte lool bàyyi moom lay tax tàggu mur yi la. jërëjëf li dafa yéeme lool wuute Sewul Xadim. ndeysaan ndeysaan nag amati nañ mbégte jërëjëf taw fexe tey ci rek jërëjëf alhamdulilah bàyyi Allah fay ah, ndeysaan ku rafet bu wax ndax si suba rek maa ngi si talaata yi maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga doon def tey jii si bëccëg bi hmm. di talaata gu rafet sëñ Mamour jëlal mbokk mi bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum waaleykum salaam maa ngi leen di ziar yal na ko yàlla nangu bu baax maa ngi tudd Ibrahima Diouf moo woowee Baye Fall dëkk Thiès kër Sëñ Abdoulaye Yacine Diouf ndeysaan ah murit ga foofu laay wootee ana soxna say bata waaye benn mbir dong laa bëgg a wax. Hmm. c'est ça. bisimilah. Eh. bisimilah. ah sëñ Ablaye de war naa dugaat mbir mi mu bëgg a wax de xam naa ni moom. Ah, ñu ngi koy xaar incha allah mu tàbbiwaat si 88 628 19 07 33 824 52 81 tey mbokk yi. Hmm. sëñ Mamoun ni ñu ko waxee jotaay bi tey. jotaayu mbokk yi la. waaw ñoo ko mbokk yi Baye Fall yi xam naa ne moom. Cheikh Ibrahima nee na laa bëgg a dégg. mu ngoog kéemaan. waaw xam naa Baye Talla kay dina dugg. <laughs> jëlal jëlal. Euh, baax sëñ Mamour Ndao. kàddu gi tuuti kan la. Hmm. abo abo loo ah. kay sëñ abo. ñu ngi lay baax. na bu baax kay. waaye résultat bu ah ñu ngi rafetlu waxtaan bu baax de. ndeysaan. di siyaare sëriñ Aliou Badara Ndiir moom. alhamdulilah <laughs> di ñaan suñu borom defal ko tawfeex. ndeysaan. ak mboolem personne bi rek ñu leen siyaare bu baax tudd sëñ Abo ndeysaan. Mm-hmm. waaw di bu baax sëriñ euh, Guèye Mouride Sarr sama xarit. waaw ah, tabarkàlla. di ko di ko siyaare bu baax di siyaare sama bàyyi bàyyi ab jóg jàkk si xaadara. ndeysaan. moom it kuy teewlu jataay bi alhamdulilah. di ñaan suñu borom defal ko tawfeex alhamdulilah ak mboolem auditeurs yi rek ñu ngi siyaar ñëpp tey baalax ñëpp baalax ñëpp tey dañ indil benn kàddu si maam Cheikh Ibrahima Fall <laughs> waaw maam Cheikh maam li ma gën a marqué si moom mm-hmm. Mm-hmm. mooy comme tegoon sëñ Touba waaw ko bépp murit boo xam ne maam yaakaar nga sëñ Touba rek mm-hmm. war ngaa mën a xam doo jël si maam Cheikh bëgg ga waaw ndax moo moo mooy bëgg nga bëgg sëriñ bi loolu moo lay tari waaw semencière daal foofu la nekkoon sëñ Tuubaa mhm. waaw ndax moom moom sëñ bi da koo da koo jaroon loolu léppam jaroon léppam daa bàyyi woon léppam jaay léppam mhm. ngir sëñ Tuubaa kon képp koo xam ne rek mhm. yaa ngi mu bokk ak ak war ngaa mën a jël loolu semence Ibrahima Fall ci bëgg te yaakaar naa la boo ko bëggee rek sëñ Tuubaa boo ko bëggee rek lépp loo xam ne ñu ngi koy tere doo ca ne lépp loo xam ne bëgg na ko yaa ngi kon bëgg gi mooy lépp yàlla nañu sëñ Tuubaa defal ñu am dégg ak topp amiin amiin amiin amiin Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu baax a baax jotaay bi ndeysaan di jaar ñëpp rek tey tuubal bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf waa kay jërëjëf sëñ Abo sëñ yi rafet na loolu sëñ Mamour ndax daa wax sama xel dem si mm-hmm. si suba maa ngi lay dégg si rajo bi ak sëriñ Ibrahima Gueye ñu ngi koy ziar bu baax a baax ci kàddu yooyu nga xamante ne moom la wax ni sëñ Moussa Massamba wax na ko si Cheikh ah, Ibra <laughs> xam naa bu ñu jëlee mbokk mi dellu siwaat ci kàddu yooyu te ziar bu baax baay góor mag Diop mu ngi mm-hmm. bëgg a tàbbi loolu ndeysaan jëwriñu fédération xidmatul am fall bi ah, sëñ Cheikh Ngounda salaamaaleykum waaleykum salaam bismillah. Hmm. sëñ Badara Ndi man Modou Baara Lo Mbour. Ah. Cheikh Fall. ah sëriñ Modou Baara Lo Mbour taalibe sëñ Cheikh Ndigal Fall ñu ngi lay ziar bu baax. yàlla na yàlla wala yàlla siyaar. ndeysaan alhamdulilah baax baax a baax. Hmm. jërëjëf. Ah, su xol sedd na bu baax a baax de. ndeysaan naa ngi ñaan daal ci barke suñ tubaab si ay borom seenu fan. seenu amiin amiin xam-xam bi yàlla ko suñu borom barkeel. amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin. waaw at yi ren daal ñoo koy ñaan ci doore Cheikh Ibra. amiin amiin barkeel na yàlla defal. amiin ñu ngi ñu ngi ñu ngi yóbbante ziar nag Serigne Cheikh euh, Ndigal Fall bu wër wër. waaw gaynde gaynde gi gaynde xel ko. waaw ma nga ci àll ba rek. <laughs> waaw nag aw ma nga ci àll ba kay. <laughs> waaw waaw ngay kéemaan la. yow yow yow nag ñu ngi lay déglu si sëñ Cheikh Fall Baye Góor. ah sëñ Cheikh Fall Baye góor ñun daal xam naa ni moom ci nu toll suñ xol daal sedd ba nga xam ne nii. Uh-huh. moom daal <laughs> dañuy bàyyi lépp Cheikh Ibra rek. rek. Ah, waaw tàmbale ci Ibra sëñ Cheikh Ibra yem ci Cheikh Ibra rek. ndeysaan. waaw sëriñ ah, de moom jàmbaar la jàmbar la ah waaw ndog yi damay xool liggéeyu ndog yi saa bu oto bi romb bu jëm. que sëñ que sëñ que sëñ mm-hmm. Mbacke mooy xool ba mu yàgg mën a cay sëñ Cheikh Ndigal. Mm-hmm. moom da moom da fëlee ngi dox fii di dox. wallaahi wallaahi maa ngi koy dégg ma ne ma ne ko fëlee ngi dox fii di dox. wallaahi ak sa sa waaye nag bàyyam ne woon na sëñ Cheikh Fall. waaw aw yoon bañ koy sàkk dox caa taxawaay toog taxul de. ko toog bokkoo de. Mm-hmm. waaye sëñ Cheikh Ndigal da ko xam-xam na toogul moom. ah toogul <laughs> waaw moom day nee na daal yoon wi am na soññee waaye amul néega ci loolu ci waaye raw nit dutoo ko jot moom foofu la ne moom <laughs> waaw foofu la lay wax waaw ci jërëjëf kon nag leen di siyaare bu baax a baax a baax bu baax ndeysaan <laughs> sëriñ Modou Baare Lo ñoo ngi siyaar bu baax sëñ mhm. ñoo ngi siyaar bu baax njabootu sëñ Cheikh Fall nag mhm. waaye jël nuyoo yàgg siyaar yëpp nag teg ko ci loxol sëñ Mbàkke Ngunda ndeysaan macha Allah moom sëñ Ngundam sëñ Mbàkke Xadim di jëwriñ lool ah. jàmbaar lool ci kër sëñ kër sëñ Cheikh Fall Roqee tubarkalla jëla mbokk mi bismillah salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam Murid kooku. waaw Murid ñu ngi leen di ziar. na ko sama borom nangu bu baax kay. ndongo la ñuy Naar Ba di Naar. Ba. Naar Ba. waaw. ak jërëjëf sëñ Naar. waaw yéen ci jàmm. baa ngi sant sama Cheikh bu baax. yéen ci ziar. warkalla jëf. waxtaan wi am na solo. am na ko jërëjëf. ñu leen di ziar ko wér alhamdulilah. alhamdulilah tubarkalla. di leen ñaanal guddi gi fan ak wér rek. parce que maam Cheikh Ibrahima ma sama sëriñ bi suñu naar Ndiaye ca Kaba. waaw yàlla xare ko àjjana oyofal ci kawam. amiin Cheikh Ibrahima Fall. liggéeyal na fa mu nekkan doon na waaw moom da ci biir koor gi ndeysaan. Mhm. moom moom man moom lañ ma tuddee. ah di. waaw bis bis bi bis biñ koy bis bi bis bis bi mu làqoo bañ koy indi sëñ Cheikh jëm. Mhm. maa maa ngi toog de. waaw alhamdulilah man kay maa ngi woon Dakar waaye am na luñ ma ci jote wax sax. waaw ba ñu ñëw ba ñu ñëw ba ñu ñëw di ko indi sëñ Cheikh jëmm de. Mm-hmm. nga xam ne nga xam ne nga xam mu mu njaboot géej pour ñu ngi ñu ngi ànd ak moom. Mm-hmm. dëgg la dëgg la ñëw ba ci kanamu sëñ bi. Mm-hmm. moom boobu maa ngi toog fi sëñ bi fa la ma fekk de. moom moom kay xel dal na. waaw xam moom moom xel dal na. sëñ bi de ko taxawul boppam moom. waaw ne xam naa ne ñun ñi ay tuut tànk. bañ nekkee ndaw ñu nga xam ne fu xel kom jógaa da ngay kontaan ba nga xam ne hmm. jamono ñun ay ndaw lañu waaye bu ñu wax xel koom daanaka ci ci ci zaay rek baatin ci ni ma ko mën a waxee. ndeysaan jamono yooyu dëgg dëgg sax moo tax ñu wax xel koom. alhamdulilah nga xam naa ne jamono yooyu moom xel koom mitteen mittuwaay boo xamante nii hmm. suñ fa demaa ba nga xam ne pour nga am néeg yoo dëkk rek di nga dox ay kilomètres pour mën a defar ay néeg ba pare. Hmm. lu ay fan. ba néeg yi egg. su néeg yi eggee. diggante bi ngay xëy di dox di dem ko ñëw ay kilomètres lay doon pour nga mën a egg ci liggéey bi mhm. jamono yooyu jamono yooyu moom li may wax sax xam naa xam ngeen ko parce que jamono yooyu moom dajjiti moo xewoon mhm. ba pare eh, jamono yooyu pour nga maam lekk gi rek jamono yooyu bu ñuy wax nii maam mbaxul Baye Diallo xam naa ñu doon dem kër ko ñëpp war nañoo xam Baye Diallo waaw mbaxul Baye Diallo nga xam ne ah, waaw nga xam ne boo xoolee mbaxal mi daanaka ceeb bu weex kese lay doon ak xorom balaa ñor sax gars yi ci kaw cin ñi lañ koy fekk. di ah, ko loolu kay maa ko waaw ñëw fekk naa loolu ñëw di ko tubbi ci biir cin bi maa maa ci kaw taa bi. waaw fekk naa loolu de. Hmm. waaw loolu lépp tam liggéey liggéey maam Cheikh Ibrahima Fall la. waaw. <laughs> waaw boo xoolee loolu ci gën a ndaw tey ci bëccëg maa ngi la bëgg a woo bi ngay def sa émission parce que maam Cheikh Ibrahima Fall moom ku ne xam na ne ci nekk ci yoonam bi wala wala lim digle. Hmm. képp koo gis mu nekk ci nekk ci nga xam ne kii ci la nekk xamal ne kii ku baax la. walaay. parce que day lu wér loo xamante ni am naa fekk mënu cee nekk. Mhm. parce que liggéey ba ba bi méttee ngay liggéey joxe sa ñax ba pare di ko xeeb. di mhm. jooy mhm. di ko xeeb lool loolu lool lool mun a paase jëf bu baax. te liggéey bi mu liggéey wér gi mu wér moo tax mu demee noonu ca ba yomal xiyaam nag noonu lay demee nii ngeen tey waxtaane noonu lay demee li mu liggéey mooy li wér parce que tey ñoom ci nekk ren ci jamono ca doon def lu safaan kenn déggatu leen te lépp nag lépp nag lépp nag boo boo xoolee li ko uuf ak li ko yor lépp. Mhm. lépp mbiram Sëñ Tuubaa la. suñu borom. Mhm. suñu nit ñi dañ di bàyyi xel leen. Mhm. suñu borom boo ko bëggee kenn mënu koo xam. waaye boo maanaam mooy moom mooy wane boppam ci Sëñ Tuubaa ne man nii laay mel. lu ma lu ma neex ma def ci nit lu ma lu ma soob ma def ci nit. Mm. suñu borom noonu lay doxee ci nit ñu bëri bàyyi ñu xel loolu. waaw fi ne dama koy faral di wax Alioune Tune mi tey. Mm-hmm. yàgg naa koy wax nenaa naa leen tey ji rajo yi ko jiitu senegal bari la te rajo yi ci ëpp. Mm-hmm. ñi ko moom nee nañ ay jullit lañ. te bañ ba rajo yi yooyu tijjee. Mm-hmm. ñu ci bëree bëree bëree bëree bëri bëri tey jii. Mhm. ragal nañoo féete ci diine ji parce que jàpp nañ ne bu ñu féetee ci diine ji kese li rajo du dem. dëgg la moom mu ñëw gëm yàlla wóolu ko ànd ak suñu borom xam ne suñu borom moo fi ne lu mooy maye mooy xañe. dëgg la de. parce que Seexul Xadim mhm. moo fi def lu baax moo fi wax lu baax. Mhm. li ci jariñu kenn xamul nuñ toll. li ci jariñu kenn xamul nuñ toll. lu leer laa lay wax nii. parce que sëñ Tuubaa li ci jariñu kenn ay millions doomu aadama ñoo ci ñoo ci jariñ ñoo xamante ni. rajo bi moo leen jubbanti ak lu ñu xam ci seen diine rajo bi la kon loolu du ay caaxaan da ngeen a liggéey yéen dañ leen war di fay fii hmm. fii fii daara joomut daa la ma yoroon état tey jii barke Seexul Xadim ma ne ma ne daa la waaw jeex na te daara joomut daa yàgg na fi nag jeex na moom la Seex Ibra indi Mbàkke Kajoor de hmm. jeex na waaw fii daara joomut daa la li ngeen li li ngeen def moo rëy da ngeen a teg nit ñi ci dëgg teg nit ñi ci yoon ne leen affaire bi nii la suñu borom nii ak nii la hmm. loolu lu leer laa lay wax nii yàlla xam na ko waaye nag yàlla moom moo bind noonu àddina mhm. yàlla na leen yàlla doole taxaw amiin bak sin toog bak sin tuwaa moom fu mu toog nay wax amin rek ñëpp a ngi koy ñaanal jullit ñu ëpp jullit ñi ngi koy ñaanal jërëjëf moo ko liggéey moo ko jëf yàlla ko yàlla ak suñ tubaab doole dimbali doole koo jàppale. ndeysaan jërëjëf. alxuraan def nu nu nu nu ñu mbokki bool yëpp nag. mbokk waaw waaw moom ñëpp dinañ ko dégg soo suñ tubaab waaye man ah. maa ngi wootee Dakar nii sax. Ah, waaw ca Géejawaay di yaax mboolem mbokki Géejawaay yi kon sëñ Naar Ba. Mm. maa ngi Géejawaay waaw. dëgg la di la jaajëfal bu baax a baax. ndeysaan ba ba xam nga ni Cheikh Ibra ni mu ni mu tojoo Kajoor mm-hmm. dañoo jàpp ne fu ne rek ko xam mm. waaye bool gi la fa Cheikh Ibra def des na ko waxtaane bis est-ce di tàmbalee reefan googu. waaw ah. ñëw ba tuubaatu. <laughs> jàpp fii mu wax Kaba. lépp Cheikh Ibrahima ko. xanaa xanaa xanaa bilaa manaay ji foofu la woon. waaw foofu la woon waaw bilaa manaay ji fële la woon ca CSN la woon. CSN la woon booy dugg Njaaréem. yooyu yëpp kañ. xam ni ba mbokk yi Mamour. ba ci li nga sax. mbokk yi sax dugg ni ñu bëgg nañ demal ñu waaw wala ngeen ngeen seetul ñu mag sàngam loolee daal jàppale ni tey ndax lii xëy na bu amee tey bala mu amaat dina xaw a gëj ndax nag yii di ñëw incha allah ñu ànd kaak yeneen euh, invité ni ñu ko doon defee saa su ne rek kon tey dañ leen bëgg a jébbal kàddu gi mm. boobaak léegi tollu na si juróom benn at yéen a ngi topp saa su ne jës mu murit si Mamour ni nga ko waxee kon mm-hmm. euh, ñu ànd kaak ñoom rek jàpp ni tey jotaay bi seen jotaay asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ñu ngi siyaar waaw man la Baye Fall Diagne Medina. ok sëñ Baye Fall. waaw Medina. sëñ Baye Fall baal ñu wàññi télé bi tuuti rek. waaw kay maa ngi jégalu. jaajëf ak sa. waaw. Baye Fall loolu indi ci Cheikh Ibra. Cheikh Ibra. tey xanaa kontaan rek ci waxtaan bi. waaw ak suñu sëriñ boobu ngeen ñëwoon. ndeysaan sëñ Cheikh Ngunda waaw sëñ Cheikh Ngunda. Hmm. waaw waaw. moo tax ñu ne tey ñu dugg. baal ngeen Baye Fall yëpp ko bëgg. waaw waaw ñëpp ko bëgg. ndax Baye Fall di génn léegi lu mu wax ñun Lam Fall daf ñu defar. Mhm. waaw 2003 ba ñu ngi déglu Lam Fall. waaw mhm. waaye li ñu def. Mhm. moo ñu defar daal maanaam. mënuñu wax nag saa su nekk dañuy déglu di teewlu waaye. tey moom dañuy jéem quoi. waaw. ndax sëñ Mamour lu mu wax léegi. pour ñu wax si la Jazbul Murid mm-hmm. waaw moo tax ñuy barkeelu dama mos a déglu foofu waxtaan bu muy wax si maam Seera Fall mm-hmm. waaw bu ko chèvre bi chèvre bi sëñ bi yónnee mm-hmm. sëñ Moussa Ka si chèvre Thiès. sa Thiès. waaw loolu laa bëgg si waxtaan bi rek boo ñu si mënee waxtaanal tuuti. ndeysaan fàttaliku wër incha allah fàttaliku waaw. waaw. atum lëmb si war si si wanagu maam Cheikh Ibrahima Fall si Thiès. loolu daal sëñ Mamour léeg nga bëgg nga fàttaliwaat ko. waaw Moussa Kalla waaw ndeysaan. waaw. sëñ Ba Ba Moussa ndeysaan Seck. waaw sëñ Medina. ndeysaan di ko ziar mook sëñ naar ba li wax xam na solo lool waaw fii moom mooy ni nga ko waxee rek ak daara la mhm. lam faal ndax nag mhm. foo xëy ni euh, doo si doo si déglu lu dul yàlla gaa am sëñ Tuubaa maam Cheikh Ibrahima Fall képp nga siy dégg waaw si Serigne Touba yam si Serigne Touba li ko jëwriñ di waxee minal xadim ilal xadim <laughs> jël jotaay bu bii nag jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall nga xamante ni jotaay ba mu tàmbalee mm-hmm. la lu baree baree baree lu réeroon feeñ mm-hmm. ci liggéey bu tedd bi nga xamante ni maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu jàkkaarloog sangam bu tedd ba Serigne Touba ba suñu jonni yàlla yi tey mm-hmm. lu baree bare jës bul murit mi feeñal na ko waaye di si delloo njëkkal bu baax Serigne Alioune Thioune nga xamante ni waaw bëgg gi kéemaan la daal <laughs> Euh, Cheikh Moussa Ka sa waaw ni ko bàyyi Fall Diagne waxee. waaw sëñ Moussa Ka de dafa bëggoon Cheikh Ibra loolu nag. Ah, ndax euh, at def na ko fa wax nga ko léegi. Mm-hmm. te itam at moom yëpp xam nga li ci gën a yéeme sax mooy. Mm-hmm. sëñ Cheikh Lo wax na nettal nañu ko fii sëñ Maxtaar Lo ñu ngi koy ziar bu baax waaw sëñ Cheikh Lo nettal nañu ko mm. sëñ sëñ sëñ euh, Baye Mbaye Ngiraan nettal nañu ko fi ko fii Baye Moussa Seck nettal nañu ko oh. te ñoom ñëpp ndeysaan te benn nettali rek la ci lu yéeme euh, bi nga xamante ni bii sëñ Moussa Ka nekk na fa guddi gu jot mm. kenn ci njabootu Cheikh Babacar Lo ko nettali sëñ Cheikh Lo waxoon nañu ne mm. kooku kenn la ci ay waajuram juróom na ko sëñ Moussa Ka damaa dajeeg moom mu ne ma noo sant mu ne ko loo mu ne ma koy samaam ma ne ko Cheikh Babacar Lo mhm. munoo miin naa ko ci dégg waaye miin ma ko ci gis ndax at mi ma def kër maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. guddi gu jot danaa dégg Cheikh Fall ne tibbal leen musaake ci bagaañ sëñ bay looyi dégg waaw bi maam Cheikh ñëwee Thiès nga xamante maam Bay Lo moom da daan togg bés bu yàlla sàkk ah. moo daal yàlla sàkk bés bu yàlla sàkk mhm. te nañ bàyyi xel ne Cheikh Babacar Lo bi mi jébbalu ci seigne touba Cheikh Ibrahima Fall seigne touba Tuubaa ko ci geej bobu seigne touba bobu seigne touba defar na Cheikh Ibrahima Fall mhm. ba yabal ko Ndar mhm. mu dugg côté Gànjool mhm. seigne Babacar Lo di mu xadam bu mag di kat di li mani dekk ba seigne Mourou gey ñay di jàngalekat seigne Mun Njaay ñay dekk fa ñi ay bokkam ñu gaday ñu ñep top mom Cheikh Ibrahima Fall ci 1892 loolu dafa yag lool lool lool te bobay it lepp ngi daje fi mom ñom waye Cheikh Ibrahima Fall mooy ki leen ki nga xam ne mooy mottali bu liggéey hmm. ñu bàyyi lépp topp ko ñu xatal leen ñu toxal leen Thiès hmm. ci 1892 moo tax moo daalal Cheikh Ibra Fall moo tax sëñ Moussa Ka nag li mu nekk maam Cheikh Ibrahima at moom yëpp guddi gi jot nee na maa ngi fàttaliku Cheikh Ibra Fall ne tibbal leen Moussa Ka ci bagaay ne sëñ Baylo yi léegi nag bii boobu nag la def la fa def waaye nag mu Moustapha sekk ñu koy ziar bu baax a baax mm-hmm. dina keroog at moomu yëpp mu def foofu ndax Cheikh Ibra daf ko ne woon bu doon ci araab yi dañ la bàyyi nga dem ndax yow kër gu guñ la denc doo gent du gent kër ga gent ba tey foofu da ngay ne kon sëñ Moussa Ka mooy kan mooy kan waaye nag ndekete boobu dajale woon lépp xam nga ay ponkal la yor yoo xam mm-hmm. ne mm-hmm. maanaam xam nga combat bi mag bi rek lañ téere bëri problème bi yëpp loolu la <laughs> <laughs> loolu sëñ maam moom Mbaye maa ngi koy ziar bu baax <laughs> waxoon na ma ne ma combat lañ teel a bëri ndax xam nga ñii maanaam loolu li ñu si jublu mooy sëñ Tuubaa ëpp na daal ëpp na si si si déggin mu defar rek day sax waaye da ngay ñëw ci defar gu mujj gi sax ah, même fi ne Cheikh Babacar Lo suñu mënu gay ñaay ñoo ñu may wax mm-hmm. Berlin ñëwal ci ñu mujj ñi rek mm-hmm. yow fi ne ku mel ne Baye Thierno Sall boo ko sampee kenn du ko sempi boo tegee sëñ Mor Ndiaye dànk kenn du ko sempi Baye Mor Ndiaye tomb del waxi dopp te ñooñu pourtant ci defar gu mujj gi lañ bokk ndax bi Cheikh ah bi moo tax loolu dafa mat a waxtaan mhm. ndaw ñi Cheikh Moussa Ka nag di loolu lépp mu def ko Thiès ci maam Cheikh Ibrahima Fall ba bi mu dina diirub at diirub at mhm. nekk ak moom foofu waaye dégg nga waaye Moussa nee na bu ko bu ko Cheikh Ibra Moussa na wax ndong la nutu mu ne ko Moussa Ka mu ne ko Moussa la ndekete boobu Cheikh Ibra xam na li xew lu ngi siy jeex Baye Moussa mu la mel waaw moom jàmbaar la gis nga lam wax Cheikh Ibra Fall wax la joo xamante ni bii maanaam kenn mos a gis ku ko wax maam Cheikh Ibrahima Fall ca woya mm-hmm. ndax sëñ Moussa Ka moo nu xibaar moo ñu nettali mm-hmm. jaayante ak maam Cheikh Ibrahima Fall baa ngi munu diina ak Serigne Touba. maanaam mission bi Cheikh Ibrahima Fall jugee ci ay bokkam. ñu mhm. dem ba Kajoor. mas nay xibaar dégg nga. Mhm. Cheikh Ibrahima Fall nee na moo ko nettali. Mhm. mas nay xibaar ak njébbaloom bay wax ne yàlla mi ko moom. moo ko ne Bamba moo la moom. kon nekete mam Cheikh ndigal la am ci top ku tedd ki di Serigne Touba Cheikhul Khadim yalla ko jox ndigal bamba ne ko moo ne bamba moo la moom mhm. raase ko jox ko secret mu tëdd guddi l'istikhar deng mhm. kon Cheikh Ibra daa xool mbir mi mhm. ba set mu xey ba tesbar Serigne Makhtar Touré fadiar jaar ko waral won ko ay pex Makhtar Touré nga yor joor ko jëm Mbàkke Kajoor Cheikh Bamba yoni ko ci bour Cheikh ba topp cay tefe ba gis fa Cheikh Adama batay ñom ñaar li gindi ko ñew ci ku tedd ki ne fu ngeen dajeeg nit na ko noo sant mun a géy na ngeen ma ko war maa leen gis Cheikh Adama Gueye est-ce que ñi lañ defoon ñoom ñaar loolu xam naa mag yi tarbiya yu toppoon Cheikh Adama mhm. bi mu fi jógee Cheikh Ibra Fall jox mhm. waaw est-ce que Baye Abdou Niang mii nga tudd mhm. baayam Cheikh Babacar Niang Cheikh Adama doon sëriñam moo ma ne sama baay nee na ma Cheikh Adama ko ne su ma fi bu jóg na ngeen jébbalu ci Cheikh Ibra ndax mooy mottali seen liggéey ci sama borom mooy Cheikh Babacar Niang mooy baayam Cheikh Adama doon sëriñam de waaye gannaaw Cheikh Adama ci Cheikh Rafal la jokk. <laughs> moo tax. <laughs> Cheikh Rafal na bu ma doon baag bu tàbb ci mm. teena. Mm. ñu lu ko ba mu génn ndox mu tuuru gëj ba dagul Cheikh Adama. maa la wax lii de. moom la tegtaloo keroog mm. bàyyi Cheikh. Wade Ndiaye moom la ne waaw san mbiram daal daal te mooy bàyyi Cheikh Wade Ndiaye moom a ne keroog bi mu àndee moom ñu ñëw ci ku tedd ki Cheikh ko dalal nekk daaram ba jàlle ci ba jàlle ko ci ku tedd ki waaw ndax maam Cheikh nee na damaa jub si Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor gépp da dee àndandoo nee na damaa jub si Mbàkke Kajoor ku baax ki def lu mel ne faari oto tàmp sama dën di ma niital yoon wi nee na ma egsi Mbàkke Kajoor gépp àndandoo di leer mm-hmm. nee na xaw ma fu leer ko bàyyikoo ci ci biir ndax Mbàkke Kajoor gépp ngi leer nee na ca laa am nee na bi may ñëw nag Mbàkke moom leer gi daa bàyyi ko Mbàkke Kajoor di ma niital mm-hmm. gisuma leer geneen ci wet gi loolu rek laay gis waaye bi ma dugg see Mbàkke Kajoor nag leer gi sàll fépp nee na ca laa am sago mhm. Cheikh Fall nee na sago su toll ne mhm. Cheikh Adama dalal ma nekk jaar daaraam mhm. ba yëglu ma ko tedd ki ba yëglu ma ko tedd ki bu fekkee mbokk yëglu na ci 88 628 19 07 wala 33 824 52 81 dalal ko sëñ Maodo bisimilah waaw asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah tey ma jël maa ngi siyaar bu baax na ko yàlla Ibrahima Mbaye Kaolack Ibrahima Ibrahima Mbaye Kaolack. waaw taalibe sëñ Bàcc Fall. ana mbokk Kaolack. Mm. ñu ngi sant bu baax ay Fall. taalibe sëñ Gàcc. ah borom Gàcc yaa bu baax. waaw taalibe ay Bàcc Fall. moom sëñ Mourou Moussa Fall. ñu ngi lay saar baax Fall Ndege. jërëjëf. nañ lool waaye émission bi neex na lool Fall. alhamdulilah. barke Mourou Moussa Fall. jërëjëf. ñaanal ngeen yàgg fi loolu tëwér. alhamdulilah. Mm. loolu Cheikh Ibra chaque jour dañ leen a teewlu bu baax a baax. incha allah faaw faaw ñu ñëw gin gi neew nag. waaw gin gi neew waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw. waaw moom taw bi ñëw moom moom waaw waaye man nag maa ngi kaw la. ah yaa ngi kaw la maa ngi kaw la waaw. mi ngi dem dañu ànd yow rek. dañu ànd ak yow dañu jaar kaw la dañu jaar kaw la yóbbaale la. <laughs> incha allah dafa bakkee yow dañu la fa baax. Cheikh Lo it duñ ko fa ah, ba de. waaw Cheikh Lo bàyyi xel waaw. ñu ngi leen di saar ak baax nag. jërëjëf loo loo ñu mën a nettali ci Cheikh Ibra. man de talaatay Cheikh Ibra ji rek laa bëggoon ngeen laal tuuti rek Mm. talaata lu waral talaata. waaw waaw. waaw. mën ta ñàkk incha allah déglu léegi rek di si dégg. tubarkalla jërëjëf Baye Fall laaj laaj laaj de jaajëf sëñ Ibrahima Mbaye maanaam ndax talaata moom dañ kaa féetale Baye Fall gaa yi la ñuy laaj waaye wala noonu la laaj waaw daal daa mel ni yow la ñuy laaj nag Fall <laughs> ah, moom kañ bu ñu laajee ma jottali <laughs> ah, talaata gi talaata ndax nag dañuy wax talaata yi maam Cheikh Ibrahima Fall waaw mel na ni talaata am na saay am na am na am na am na taarix waaw ak ndeysaan ci lu wér. Hmm. xam naa nag ku mel ne sëñ Mountakha Gueye Fulku. wala hmm. sañ Mbaye Ngiraan ñoom bu fekkee ñu ngi may dégg. Hmm. lii ma wax danañ ci am firnde. dëgg la ku tedd kee masa woolu Cheikh Ibra Fall. da ko ñaari bis yi dañoo ñëw fi man di ma jàmbat seen bopp. ma diis seen bopp na dañ leen a gaafal. ba duñ leen boole ci dara. muy gaaw ak talaata. na ko man nag jël naa gaaw waaye Ibra Fall rafaati naa la talaata. wax nañ ne bis boobee Cheikh lo Fall kàddu sëriñ boobee mhm. mu dégg ci talaata yi mu ko jox ndigal tax na mu barkeloo ci lii ma lay wax mag ngi nee nañ mhm. trois ans treize mhm. la ca magal ci bis boobee ngir barkeeloo ko ci kaddu kaddu sëñ bi. mooy lëlu xuru mbàkke bi. waaw njort naa ne nag. boobu mm-hmm. lay doon. dëgg la sori. waaw mm-hmm. <laughs> kay lëlu bu bëri boobee. waaye daal barkeelu na. si na daal ci ci loo xamante ni. mi miinuñu ko woon ndax talaata dañ daan wax naan du bis. ngir tàmbali de su ko boole talaata moom. dañ ko beroon daal daal di su ko boole talaata moom sëñ bi ko dimbali. ndax talaata ci bis yi ñu daan faral di. def lu bëri waaye fi na talaata. Mm-hmm. bëri na sax loo lu ñuy waaj a def waaye dañ naan nañ ko xaar ba talaata. kon talaata dafa sëñ bee ko barkeel waaye dénk ko Cheikh Ibra Fall moo ko moom. Mhm. bàyyi mbéy kenn xandi nee na ma. Mhm. Cheikh Ibra nee ku ci xëy xëppoom ndox. Mhm. bisub talaata danga gudd fan danga nga bëri wërsëg. talaata nag Cheikh Ibra ko moom sëñ. ma yaa ngi dégg waaw Cheikh Ibra Fall na ma. yàgg bëgg talaata lool di ko màggal talaata gu jot. mu defar ay ñam ak xéewal yóbbu ko ci barab maam Cheikh Ibrahima Fall. bëri na ci njabootu Cheikh Fall goo xam ne. dañuy dundal talaata dañ koy màggal. kon nag Baye yu bëri si la sos seen i daayira sax. Ah, waaw talaata kay hmm. ci la lépp new. ndeysaan <laughs> mbir la de talaata. est loolu nag mooy li mën a feeñ. Hmm. ci kaw ngir ma mën koo wax. am na si loolu moom. waaye li ci biir waxtaan li ci des waxtaan biir léegi. te àdduna gi ñuy seetaan. Ah, ñu xaar leen yaakaar naa ni la xam nga te loolu. sëñ Ibrahima Mbaye loolu ak junj la si talaata gi. Hmm. di lay ziar bu baax a baax ak waa Kaolack. di ziar bu baax sëñ Bàcc Fall. Euh, boroom ngàcc. Ah, di ko ziar bu baax a baax asalaamaaleykum. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si xanaa yokk kàddu gi tuuti rek. waaw naam. kooku. Ah? Ah, dafa mel na day xaw a dagg tuuti rek. soxna mu bisimilah. allo. daa mel ne dégguñu bu baax ñu ngi jégalu xam naa. allo. waa xam naa bu mënee tàbbiwaat ah, xam naa ñu ngi koy ziar bu baax a baax ni ma ko waxee di ziar nag bàyyi góor mag Diop ah, waaw di njiitalu fédération xidmatu Lamp Fall mhm. euh, waa kër Serigne Cheikh Ngounda Fall di nag euh, sunu jëwriñ mhm. boobu ba léegi mu ngi am lool yéene nag tàbbi si liggéey bi moom bàyyi góor mag waaye xam naa ñàkk yàlla mun na dogal mu tàbbi balaa jotaay bi di jeex asalaamaaleykum waaleykum salaam ku baax ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax ah ñu fooy wootee Modou Ndiaye Thiawène Diko. Serigne Modou Ndiaye. Thiawène Diko. Thiawène Géej. Mhm. tuuba Diko Diko. dégguñu. Thiawène Touba. ah, ah Thiawène Thiawène Thiawène bismillah Serigne Modou waaw. waaw maa ngi. ah waaw Thiawène de xanaa. waaw <laughs> ndeysaan. bismillah. waaw maa ngi siyaar bu baax a baax. yàlla na ko sama borom nangu. ah sëñ bi topp naa leen lool lool lool. ndeysaan waa kay jërëjëf. damay topp seen émission bu baax a baax a baax. alhamdulilah. maa ngi leen di béggee bu wér a wér a wér. ndeysaan. ngeen di waxtaanee ak moom kenn la. waa mm-hmm. waaw. topp mm-hmm. mm-hmm. naa ko lool lool lool lool lool. ndeysaan. waa waaw. loolu ñu mën a nettali ci moom. Cheikh maanaam ci waa kër ci waa mu yàgg ci lool di wér. bak seexul xadim seex ibra xujj taalube arama topp seex ibra xujj maa ngi koy siyaar bu baax sëñ ibra xujj xalifa sëñ mën lumbe ibra mbàkke maa ngi koy siyaar bu wér a wér a wér xalifa seex mën lumbe waaw ndeysaan macha allah waaw maa ngi koy bu wér jot lim nuyoo sëñ seex bintu itam ak di ko siyaar baax moom moom moom sëñ moom sëñ mu yàgg lool sëñ mudu xabbaan waaw maam seex de moom mooy mooy lépp daal waaw mooy mbir mi daal ku jariñu ci yoonu murit daal santal maam Ndiaye ndax mooy lépp ndax moom moo moo taal làmb waaw lépp daal mooma mm-hmm. loolu ñuy wax njaag daal moom moom moom daal moom daal maam Seex daal yi lépp daal mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu daal laa yàlla ndeysaan waaw ma jox la sama soxla si ok asalaamaaleykum sëñ bi waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi leen ziar bu baax. na ko sama borom nangu bu baax. ah ñu de li suñ lépp maam Cheikh. Hmm. ca yoolu. waaw ñoo bëgg maam Cheikh kontaan ci loolu. Hmm, ndeysaan. ñu hmm. ah, xam nga ñoom ñaar ñi. waaw sëñ Modou ak soxna ñu ngi koy. waaw ak soxna si waaw. Eh, léegi xam nga day wane ne. lii lii leneen la. ndax que sëñ Mandoumbe lañ bokk. Eh, dëgg loolu waaye sëñ Mandoumbe ak Cheikh Ibra Fall. benn ñoo bokk aw doxin. ba pare jaxasoo woon nañ lool. Mm. am na fu ñu daan daje. Dakar mm-hmm. ga bu ñu masaana daje ñoom ñaar. dañuy mm-hmm. dañuy roofaloo. Mm-hmm. te it seqoon nañ lu bari daal ndax boo xoolee sax seen ñaari barab yi nii mu demee. la bunt bi dox seen diggante ñoo ko waxtaanee woon. fi ne tey boo jógee ci barabu Cheikh Ibra. doo génnaat biir barabu Cheikh Ibra ngay jaar dem barabu Sëñ Ahmadou Ndoumbe. ba pare it. xam nga fii sëñ nga Ndiaye Ngiraan ñu koy ziar ba invité nañ ko fii koro ñu ngi koy ziar ba baax te daa xuddoos am na lu ma sa xew ci njaarim Cheikh Ibra fekkiwu ko waaye sëñ ma lumbee addu addu waa leen maam Cheikh Ibrahima Fall loolu jaxasoo la ndax moo wax ne ma lumbee da lànk na lànk na Ibra Fall sëñ Balla Fall na bërit na Balla Fall lànk na lànkaleel mu lumbee loolu jaxasoo la goo xam mag dañ koo jaxasoo woon sëñ mën numbee Cheikh Ibrahima leneen la xam naa du ñàkk bis dana jot incha allah ndax yii yëpp nañ bàyyi ne lu ñu nañ bàyyi xel ne ndax sëñ Mamour diggante diggante boobu ñor ñu waaw kay moom laa bëgg a diggante na ñàkk ci barab bi faaw nu waxtaane ko ndax dafa bëri lu ñu waxtaane woon mhm. na lu eh, xamoon nga ne ñaar ñii daanaka li ñu xamoon ci Cheikh Ibrahima surtout ca gannaaw ak demam ak lu mu leen battale woon battalewu ko kenn mhm. waaw sëñ mën numbee sëñ Abdourahmane Lo waaw wér na de cay. bu ñu defee Cheikh Ibra Fall fii ñu ko def tey. Mhm. te defuñu ko fee ñu def ku tedd ki ndax fa la ñu waajoon. Mhm. sëñ Modou Mbaye ak sëñ te danaa la wax jël ko jël ko ba noppi ci moom na nga xam ne noonu la sëñ Modou xam baan mujje ci sëñ mhm. Modou Moussa Fall. jël mbokk mi bisimilah. <laughs> salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw mbokk mi daa mel ni mu ngi si biir bisimilah salaamaaleykum. waa xanaa ñu xaar rek. kon mbokk thème bi. maanaam ni sëñ Modou Ndoumbe mujjee ci maam Cheikh Ibrahima Fall ba mu dénkoon ko boppam sëñ Modou Moustapha Fall noonu la sëñ mu Xabbaan taxawu sëñ Modou Moustapha Fall. Mhm. ndax njort naa ne ña fekk demul sëñ Modou Moustapha Fall sëñ Modou Xabbaan la bokk. mbaa mhm. suñu ca mhm. jaxasoo gi sëñ Modou Ndoumbe jaxasoo woon ak Cheikh Ibrahima Fall. noonu la sëñ Modou Xabbaan. ñuy taaw sëñ Modou Ndoumbe jaxasoo woon ak sëñ mu Moustapha Fall xam nga loolu. day wane ne benn la te tey jii foo fekk ku bokk ci kër sëñ Modou boo ko nee jàkk ab Baay Faal lay doon ah, <laughs> ñëpp ci bokk yam ni boobuma kenn <laughs> xam naa suñu roxu bu baax ah. moo ma nekk keroog mu mu jëgg sama am Cheikh Ndaw di jeex Baay Momar Diagne nekk si barab bi moom xam nga ni moom ah moom foofu lay wuyoo fa la bokk est-ce que <laughs> waaw sëñ sëñ roxu moo ma ne hmm. kër Baye Youssou Diagne la ma ko nettali maa ngi siyaar bu baax Baye Youssou ñoo jàkkaarloo kër sama Baye sama xarit la nee na la ma nettali ñëw ci kër ga mu ne ma sama ba ma koy mujj a gis Baye Cheikh boobu lañ denc Serigne Assane bay génn ci xay bi ma ne nganu sërif ga maa koy séddale ci caajal Serigne Ibra Khoudia moo wax lii te tey moo fi Serigne Modou Xabban di jëlal ko jëlal mbokk ñu ngi siyaar bu baax salaamaaleykum bismillah waaleykum salaam wa ah damaa demoon ne émission bi du tey de damaa dugga a dugg ba sonn. <laughs> waaw damaa tey ligne bi nag xam naa li nit ñi di dajeendoo ci. ligne bi waaw Cheikh Ibrahima am teel mu dëgg yàlla maa moom daal ziar naa la. yàlla na ko ah, mu baax mi ñu ngi lay ziar yow de mënoo woon ñàkk dugg moom. <laughs> waaw. boobu léegi maa ngi damaa mujj naan xam naa du émission bu bees. ndeysaan ndeysaan waaw ziar naa leen bëgg naa leen bu baax a baax ndeysaan waaw kaddu ku baax ci rek laa dégg rek ma ne xaar nag ma dugg. est-ce que est-ce que Cheikh Ngounda Fall waaw ah, am na solo bu baax a baax wallaay wallaay ñëpp rafetlu nañu ko. mais doomam moom dama koy gis sag magal kër sëñ Mor Talla Fall sëñ mu baax mi ñu ngi koy ziar bu baax a baax waaw lay màggale xam nga waajuram bu jigéen bu baax boobu Aziz ñoo bokk baat wér la koy ñaan suñu borom yokki leeram bu a wër baax cheikh sëñ Aziz nag mooy sama sëriñu borom kër alhamdulilah alhamdulilah ndeysaan leen di ziar bu baax a baax di rafetlu émission bi

soo gisee li ñuy dajeendoo ci ligne bi ndax mm. ñu bari am nañ ñu bari ñu ngi yëglu si téléphone bi si suuf mm. wanoon ne amoon nañ yéene yi dugg mm. euh, Baye Góor Mag Diop waroon naa dugg ndax moom am na njàngat bu am solo bu mu buggoon a def si sunu jotaay bi émission bi moom na xam naa ne nee naa woon bis dina ñëw nag da ngay ñëw jëlbul mu incha allah mën ta ñàkk di ko ziar bu baax moom ak Baye Mbaar Maguette Ndiaye di ko ziar bu baax a baax ñoom Baye Wura Jaw ñoom Baye Ba Sall waaw Baye Mortala Gueye ñu leen di ziar magi magi magi kër gi ñu ngi leen di ziar bu góor asalaamaaleykum mbokk mi ñu ngi lay ziar bu baax bu baax a baax barikala alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi wi ak fooy wootee Basiru daarul minan ma ah sëñ Basiru Ñang mu sëñ Taala Ñang mu sëñ Taala Ñang ñu ngi lay jeex mu sëñ Moussa Ñang Moussa Ñang ñu ngi jeex bu baax a baax sëñ Taala Ñang di jeex sëñ Basiru mii nga xamante ni eh, leeram la di si jaaraale jeex bu baax sëriñ Basiru Fall fii ci Grand Yoff ak mboolem mbokki eh, daara ji fàttewul leen ñu ngi leen di jeex bu baax a baax wax dëgg yàlla sëñ Mamour jotaay bi moom nii la woon rek tey ak nuyoo la woon xam naa ñu ngi jëlaat kon eh, beneen mbokk si ligne bi salaamaaleykum

waaw eh, gars yi dafa naa kéemaan dëgg lañ. Eh. waaw balaa émission di jeex di jaaraale soxna maam Faati Gueye caatu eh, lamp moom it ndeysaan xam nga ni émission yi daanaka benn du ko ci romb. moom daal mun nañ ni àdduna dañ koy bàyyi xel. waaye nag lii gën naa dalal suñu xel si mm-hmm. Mamour. wane ni mbokk yi kon ñu ngi koy topp bu baax a baax di sant bu wër a wër ndeysaan mboolem seen ñi woote ak ñi amoon yéene woote. ndax mm-hmm. xam naa ni sëñ Dame Thioune. Mm-hmm. ak Cheikh Mohamed. dañ ñuy Mouhamed Thiam da ngeen ñuy téye ligne bi ñu mm. ko defee sëñ Mamoun nag ñu mën a tëj mm. xam ne tey nag ak nuyoo la woon wan leen li jotaay bi dellusi na incha allah ni ñu ko baaxee woon mm. doon ko topp ndax nag euh, géej gi yëpp du dara lu ndigal yi nga xamante ne moo fi tegloo woon macha allah kon mm. toog gi ni xawoon naa géej lool. Mm. bi weesu xam ngeen ni ñu ngi tegoon àndoon ak Sëñ Cheikh Mbengue Baye Fall maa yomba. waaw ah, jotaay bi bañ ko defee léegi mat na at waaye dafa mel ni. Mm. daanaka talaata bi weesu lañ koy doog a def. Mm-hmm. di ko ziar bu baax a baax ndeysaan. ak mbokki Thiès yëpp fàttewuñ kenn. Euh, sëñ kon xam naa ni. bii di ñëw. Mm-hmm. incha allahu rabbi talaata bii di ñëw. fas yéene ñëw kon mbokk yi niñ ko miinaatee. niñ ko miinaatoon ak ñi nga xamante ni. macha allah dañuy gëstu bu wër a wër si ah, maam Cheikh Ibrahima Fall parce que ka ànd ak ñoom ngir nag Cheikh Ibrahima moom bu ñu ko doon wax ba àdduna tukki hmm. maanaam lu ñu wax rek hmm. doo si jaaraat ah, te daanaka doo duñ ko mës a jeexal ah, waaw si jaadim hmm. <laughs> jërëjëf bu baax baax nag eh, ñaan sunu borom mu dimbali ñu ci maam nga xam ni moom moom lañu faral te li tax itam mooy xam ne sëñ bi faral na ko te loolu leer na nañ àdduna bépp gis nañ ko bentum mm-hmm. njolloor la moom fàng la def su defee itam ñu xam ne li ñu fi tax a toog mooy waxtaanee mbaaxam gi mm-hmm. ak gindi mm-hmm. ñi nga xam ne dañoo am yéene ak pas-pas ngir liggéeyal ko dëgg fi nettali it ku Seex Ibra yar moo na ko wax mbaa ku Seex Ibra yar bàyyi lenn lu ci nekk itam nag waxuñu ko ngir bokk ci. Mm-hmm. waaye dañ koy wax ngir seedal ko suñu borom. dëgg nga xam ne Cheikh Ibra Fall moom fi ko yàlla teg. Mm-hmm. dem na fa ba noppi. loolu moom ku yàlla bind. Mm-hmm. nangu rek nga ci man waaye amul leneen. ndax loolu faat na. sëñ Tuubaa lu ko mas a wax fi Cheikh Ibra mu ne la loola faat na. déedéet mel ni Ibra sax borom Tuubaa nee na faat na. kon nag. kookee ku yàlla defal tawféex nga fa yéene ngir jàngale dara ci moom war ngaa sant te xam na du du njàmbaar du loo jëfal yàlla du dara waaye ndimbalal sax borom la ah. Cheikh Ibrahima am na ko ko wax léegi yàlla ci dimbalib jàmm waaye moom naafiq ñi mu ko ñi koy gént sax koo gis mu ne la damaa gént gis ko Cheikh Ibrahima la gis seytaan du ko làq ah, maa la wax léegi cey mm-hmm. sunu waa saytaan du ko làqatoo te am na ñooñu mm-hmm. luñ man ñi ngi koy def waaye mënuñoo gis Cheikh Ibra guddi mm-hmm. luñ man ñi ngi koy def waaye mënuñu koo gis mm-hmm. Cheikh Ibra naafeq du ko gis saytaan du ko gis ndax moom néewul ci yooyu te duñ ko jublu te déedéet moo waxal boppam ne maag sëñ Bàmba li ñu indi jamono mooy génn naafeq ci lislaam kon kooku naafeq ñi mu ko fu mu ko a gis ma daw fu mu ko mas a gis def ko lu garaaw addi baaw la wax loolu saytaane moom ak naafeq duñ doon bàyyi faal mukk ci àdduna ndax li tax moom mooy dalay woo ci loo xam ne ca ngay gànt la ñoo xam ne yow bokkoo maam mm-hmm. Cheikh mbiram yomb naa lijjanti mm-hmm. xam nu mu yomb mooy dalay woo ci loo xam ne yow doo dem da ngay nga xam ne yow bokkoo ndax bàyyi faal kat sëñ Abdou Aziz Mbacke Majaris na ci lu am solo ñu koy jeex bu baax baax ko ko doon xam ko waaw jotaay dinañ ñëw ak moom nag jotaay bu am solo ndeysaan bu ñu def ak moom dinañ si ñëw incha allah bu soobee yàlla am naa sax yi rek ndax yow mii toog mm. koor gi ñuy waajal kumte yi mhm. ak statu Mbàkke bii mhm. ak addi ay addi yi sëñ bi waajal waxtu bu jegesee mhm. yow mi doon Baay Faal da nga xam ne Baay Faal nga yow maa ndax loo mën a jaay ci sa alal di ko jaay ngir li sëñ bëgg am am na lu jege lool tabaski yi jeex na tàkk <laughs> est-ce que nga te kon Baay Faal ku ko doon xam ko maa la wax lii de waaye ki nga xam ne day fàtte ndigal wala mu soofantal ndigal wala sax kenn du ko jox ndigal moom kenn du ko sant dara bu doon moom am xar képp kooku su taxawee nag Baye Fall la. Mhm. des na xoolaat ak Baye Fall mbaa fu mu ko teg moom. maa la wax lii de maa la wax kon Baye Fall ko ko doon xam. yo yo yow bu bu na koy xaar ko sëñ Talla ñoom. sëñ Cheikh Lo Baye Fall nu ngi koy jeex yooyu de Baye Fall nga bu wër a wër bi sëñ Mamour barki maam Cheikh Fall. waaw te yaa ngi Baye Fall barki maam Cheikh Fall. macha allah na yàlla daal daal daa mel ni daal xam naa ni. mën na yàlla daal moom moom kéewaan la xam naa ni moom. yàlla di daal yéeme nañ lool dama am sama ñaari mag yoo xam ne mhm. ñoom ñoom dañuy xool lu baax lu jàpp luñ jàpp na rek. jot na ci man ñu ñu ñoo ko jox ma. Mm-hmm. kenn ki Baye Serigne Sarr tudd ko ci des Cheikh Fall Ndaw Baye Góor la. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax. li ñu def rafet na ñu ñu ngi waaw ñu ngi ngi ñu ngi Touba. centre commercial. Mm-hmm. yooyu nekk Touba. Mm-hmm. ci gannaaw marché bi ci kanam tuuti foofu lañ nekk. waaye luñ xam ne luñ xam ne baax na rek ñoo ko jox ma fi ne ñoom ñaar ko soto. macha allah waaw. maanaam kenn kee ñëw njaxas bi ka ca des taqale la ca des. maa la wax lii loolay yéene dëgg. yàlla na suñu borom kàttanal léegi bu baax bàyyi sax nag. <laughs> xam naa moom mënoo cee wax ndax daf maa jégalu ba mu ëpp. waaye waaw li murit bi laaj. ngir mhm. bëgg ma waxal ko ci moom moom dama ko cee waxal ñaari baat rek. waaw mooy daal na àddina bépp xam ne. Mhm. ndax bàyyi sax ñi ko xamoon bëri na. Mhm. ñi mu daan dajale bëri na ñi mu jëflanteel bëri na. waaye nit ñëpp xam ne li ne fi moom Cheikh Ibrahima ko ci def. ci lu wër ndax bàyyam ci nguur la bàyyi ko toppi Cheikh Ibra Fall mm-hmm. ba mu waree fal sëñ Babacar Ndaw ca la toppi seex Ibra mm-hmm. jaam yaag yépp da ko fa wàcc ba mu demee Cheikh Ibra ko tudde Babacar mm-hmm. ba pare def ci moom li ni ki moom Cheikh Ibra ko dencal itam sampal ko kër bàyyi Cheikh juddoo ci biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh lewu ko tudde ko boppam mooy première turandoo Cheikh Ibra Fall ci kaw suuf ca Tasineer Ganjul. cër wu rëy. Baye Cheikh ci 1800 yi la bokk. Mhm. te mag ña la bokk de. ndax dund na ay 85 ans yu topp. te Baye Cheikh 1902 la fi jógee. 1980 la fi jógee mhm. kon dafay mel ne. te mhm. mag la bokk. Cheikh Ibra ko lewu tudd ko. laataa mu koy tudd it ca njëkk am taalibe bu jébbalu ci moom. moo ngay la tudd. gol la bàyyi ko. gol gën ci kaw de mhm. def listixaar ñu teg ko <laughs> moom Babacar Ndaw ma ngoog def listixaar ñu teg ko moom Babacar Ndaw bi mu ñëwee ñu ne ko Babacar Ndaw dafa génn mu ne sama listixaar won na ma mhm. lu ñu fi bàyyi luy doon ñëw jamono ñu ne ko liir bi ñetti fan lam ci lal mu jël nosu gileem nga teg ko ci kaw Baye Cheikh na ko jëbal naa sa bopp mhm. kenn ci mag ñi ñoo moo ma ne Baye Cheikh moo ma ne ca làmmiñam koroog ba ma nooyin génnee ma jox naa la sama bopp ma ne ko nangul naa la ko daa tiit ba xëm te boo bàyyi seex joxaguñ ko tur léegi nag loolee nag seex bi def ci moom moom la moom moo tax mu ne ba mu doonee tur tànk mhm. maam seex daa ne ko taf ci dënnam ba mu nelaw mhm. mu jox ko ndeyam ne ko dama tërili ko mhm. bàyyi seex nee na dënnam boobee Seex Ibra Faal daan taf ci sama dënn ndax maam seex nag dënn ba mbir la woon waxoon na sëñ Mor Ndiaye tomb del na ko danaa la ko wàll waaye wàll na ko de moo tax nee na ba ma daf ma daan taf ci dënnam ba ma nelaw mu jox ma sama day ne ko dama tërali ko nee na moo tax sama juróom-ñaari at mhm. ci laa ci la ma Cheikh Ibra Fall defal Baye Cheikh nee na mhm. tànk bu ma doog ci yoon xam kii ndeyam mhm. xam kii bàyyam xam ñaata noyyi la noyyi xam ñaata noyyi la dese xam bu faatu àjjana la jëm wala sawara. ndeysaan loolu moom gaa yaa ngi déglu. di ko fekk ñu ngi dund. di si bu baax mboolem njabootu Baye Cheikh loolu la Cheikh Ibra Fall defoon ci moom. ak ak ak Ndaw ñu ngi koy ziaraat baax a baax Ndaw ko Ndaa ñu ngi lay ziar wër a wër wax dëgg yàlla sëñ Mamour. ndeysaan jotaay bi na sax am ñu siy teg looy tàggatoo. waaw ah tàggatoo nag. ba talaata bii di ñëw incha allah. waaw waaw waaw talaata waaw incha allah. mu xanaa di sant bu baax nag. Mm-hmm. tey ñaan yàlla. Mm-hmm. sa borom dugal nga ci biir Cheikh Ibra Fall da nga ñu gën ñaan yàlla sama borom doolu laa taxaw bu baax a baax. ñi nga taxawoo liggéey bi ba nga xam ne àdduna yëpp seede nañ ne. Hmm. taxawu nga ko ñëpp mën nañ am nañ ci seede. Hmm. te noonu noonu moom xam nañ ci lu wér. nga hmm. ñaan yàlla taxawoo la noonu. sa dara bañ a laal suuf. nga yegg ñu yoon. ñoo ngi ñaan ci barki Cheikh Ibra yàlla yàggal fi suñuy kilifa ak suñuy waajur yi ne ci suñu kanam. amiin sunu njaboot gi nga xam ne. dañu am yéene yi mm. ànd ak ñoom liggéeyal mm. maam Cheikh Ibrahima Fall mm. eh, lépp loo xam ne naal nañ ko it lépp dañu am yéene yi mu doon lu Cheikh Ibrahima Fall gërëm yàlla na ko yàlla yeggale ngi sàkku itam nag ci màggu maam Cheikh suñu wëllëree yi nga xam ne Cheikh Ibrahima rek a tax nu yi nga xam ne Cheikh a tax ñu sopp ñi nga xam ne Cheikh Ibrahima rek a tax ñu te saa su ne ñu yoral yàlla yàlla taxawu leen ci saayir ak ci bàyyi maa ngi ziar nag bu baax kuréelu daayira jës bu murit ci jiite sëñ Modou Fall moom sëñ Modou Fall moom Yaasin mboolem si ñëwaat si euh, waa daayira jës bu murit yaa ngi ànd ak ñoom ñu ngi ànd ak ñoom sax bu rëy boo xamante ne incha allah ñu ngi koy waaj si jamono ji ndaw bu mm-hmm. sottee mm-hmm. dinañ ànd na ah, luñ engagé ci jamono ji incha allah daayira jës bu murit gannaaw mm-hmm. koor gi bëri na ay naal yu bëri yuñ naal yoo xam ne ñi ngi ci ba fii may wax yow ñi ngi ci ay réunion ñu ngi ci ay waxtaan mm. ñu ngi ci seen kilifa yi nga xam ne ñoo ne ci seen kanam di ci waxtaan ak ñoom mm. waaye bu lépp sottee ak ñëpp dinañ ko dégg ñu ngi ci ziar baax sëñ Modou mu yëpp mm. waaw di di di di dem ak sëñ bi di leen bàyyi ak sëñ bi di wax ne daal ñoo ngi ñaan ci barke maam Cheikh na mu ko waxee woon yal nañ mucc ci mu ndog te forub dog amiin doole Cheikh waaw mun a mu ndog baax na nag forub dog waaye forub dog leneen la <laughs> amiin jërëjëf sëñ Maour <laughs> mucc ci mu ndog bu baax a baax mboolem mbokk yi doon seetaan jotaay bi mm. di euh, sàkku ñaan tey ñaanal suñuy euh, waayjur sëñ Mamour euh, suñu bàyyi alhaaji Moussa ñu ngi koy ziar bu baax te ko ñaanal suñu waayjur it ajaratu Mbaye ñu ngi koy ziar bu baax a baax te di ko ñaanal ndax nag lépp ñoom la mm-hmm. amuñu léeg-léeg habitude sax di leen tudd wala di leen mm-hmm. di leen di leen ndax mënuñu leen a sant mm-hmm. waaye nag dañ leen di ñaan te di leen sàkkul ñaan waaw ndax nag bañ ñu tegee ci yoonu sëriñ bi alhamdulilahi rabbil alamin mm-hmm. ak mboolem njaboot gépp rek bàyyiwuñ kenn mm-hmm. ndax boo leen tuddee dañuy yóbbaale njaboot gépp rek mm-hmm. euh, soxna yeeg mag yeeg rek yeeg njaboot gi ñëpp rek macha allah sunu borom kàttanal leen bu wër a wër euh, tey doollee ñaanal sëriñ Cheikh Ngounda Fall nga xam ne mooy sunu yaakaar tey ak ëllëg sunu yàggal ko fi lool te ak wér ak mboolem njaboot gi njaboot gi maam Salihu Fall yàlla na boroom borom ko. ndeysaan taw bu mat taw noppi lool te te te te te te te yaru. ñu ngi koy ziar bu baax wax dëgg yàlla. leneen la Baye Sakk sëñ Abdou Sakor. ñu ngi koy ziar bu baax a baax. sëñ Fallu nga xamante ni démb rek moog sëriñ bi ñoo ànd si barab bi. Mm-hmm. Eh, sëñ Abdourahman ak sëñ Mourou Amine te ñoom njaboot gi. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax bàyyiwuñ kenn. Mm-hmm. Eh, soxna Yuma ñu ngi koy ziar bu baax a baax. di eh, ziarit eh, yaa awa saaxo soxna awa fàttewuñ ko waaye sunu sunu bàjjan eh, Fat Sis ñu ngi koy ziar bu baax a baax te doole ñaanal nag sunu maam faat Fatmata Fall. Oh, sunu Fatim Xëri Fatim Xëri. te njaareem. Mhm. sunu borom yàggal ko fi loolu. te maa la <laughs> ma waxoon si di fekk naa fi jamono Serif Assane la. est-ce yokk na liggéey bi de. tey maa la wax lii. tey waay jël ko waxee. mu kenn du moom. ndeysaan alhamdulilah waaye moom yokk na ko waaw waaye ku yokkul fat say mii dugg mm-hmm. léegi si jotaay bi mm-hmm. sant nañ ko bu wër a te di ko ziar bu baax a baax rek mm-hmm. tey ñaanal suñu bàyyi baabu say xam naa dañ fa dem bu soobee yàlla ziar si ko mu mën ñoo leeral lu bare bare bare si maam Saliou Fall mboolem mbokk yi ziar nañ leen yéen ñëpp rek incha allah te fas yéene dellu si incha allah talaata bii di ñëw ci jotaay boo xëy nag invité bi duñ ko teel a dévoilé surprise lay doon mbokk yi ànd ah, kaa yéen niñ koy baaxoo di defee saa su ne rek ah, jaajëfal mbokk yi ñu doon àndal euh, ci liggéey bi sëñ Majeng si mm. euh, sëñ euh, ba Daabo mm. ak si wàllu réalisation bi Dame Thioune ak Mohamed Thiam mm. jaajëfalaat bu baax sëriñ Seydina Alioune Thioune moom bëggam Cheikh Ibrahima moo tax jotaay xam nga ni ca Touba. baay mm-hmm. Baara booj Baye Ibrahima Dia. Mm-hmm. ñu ngi fa di. Euh, jàmbaar lañ doon ndeysaan waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall ci lu wër ndeysaan. Mm-hmm. di leen ziar bu baax sunu bàyyi tedd yooyu. fii si Ndakaaru sëñ Mamour xam ngeen ni jotaay bii nga xamante ni moom la la jagleel. nga koy taxaw taxaw lu mu gën a rafetee yàlla na lu sunu borom gën a kàttanal. muy kon euh, talaata ndiki si bëccëg xam nga loolu Cheikh Ibrahima rek ko mën. fi mu ne nii boobu ba léegi yaa ngi ja jànkonteeg ay coono. waaye tey bu ñu ko doon fanaanee di ko xëyaatee di ko fanaanee yaakaar naa ni doo ko yegg ngir Cheikh Ibra rek nga ciy dund ne la kàttanal bu baax te kàttanal ndax xëy waxtaane maam Cheikh Ibra Fall gont waxtu wi mu guddi loolu ñu nekk fi ba léegi mm. alhamdulilahi rabbil alamin di leen ziyaaraat bu baax a baax di leen jox daje incha allah kon talaata bii di ñëw waaxiru daax daawaane an alhamdulilahi rabbil alamin